wa annani mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën di nekk ci uh, biir mi ak ci bitim réew ñu weyal plateau spécial bi nga xam ne moom lañu ñu amal fii ci Touba en direct ci résidence Khadim Rasoul ci uh, ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru koor gi bis bi nga xam ne ci lañ doon séentu weer wi ginnaaw bu mu feeñee ci euh, ñu àndoon ci commission bi nga xam ne moo nekk ci euh, grande mosquée bu Touba ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ginnaaw bu weer feeñee nag euh, ñuy wéyal plateau bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci résidence Xaadim Rasul ñu doon jàngat li nga xam ne moo jëm ci weer ak ni nga xam ne noonu lañ ko resentoo ak xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci weeru feeñ fan la war a mën a jugee ba ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi war ko mën a gëm ci loolee ñu ngi woon ak Serigne Cheikh Sylla Talib sëñ Cheikh mu mel ni ñu ngi woon ci euh, waxtaan wi ci li nga xam ne moom moo di weer fan naka lañ ko mën war a séentoo waaye tamit xibaar bi ci kan ndax jullit bu nekk rek bu ne gis naa weer ak fu mënti nekk war nañ cee mën a sukkandiku ngir mbooleem jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci boobule gox war a mën a wari. ok jërëjëf <coughs> sëriñ Fallou di di la waat di siyaarwaat baax mbokk yi weer niñ ko waxe woon rek sànq euh, wuute gi am ci weer moom lu yàgg am la. diine lu mu xam la lu mu jàpp na lu am la euh, ndax borom bi tabaaraka taala ni mu bindee asamaan seeg weer weeg jant beeg ni muy doxeeg montagne yi hmm. ak rawante éclairage bi nga xamee ne am na ci diggante heure yi hmm. loolu day day feeñ bu baax a baax a baax ci ci feeñoog weer wi ak ñàkk ak ñàkk feeñam hmm. maanaam sax weer mën naa feeñ ci ab dëkk boo xamee ne du sori loolee ak dëkk bi nga nekk te yow doo ko mën a doo ko mën a doo ko mën gis léegi nag boobaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne suumu li ru'yatihi wa aftaru li maanaam woor leen ci gis ko dog leen ci bu ngeen ko gisee mhm. euh, foofu ñaari wax moo ci am mhm. yenn borom xam-xam dañoo wax ne bu fekkee suuma li ru'yati yi euh, kenn koo gis ci adduna bi ak fu mën nekk rek ñëpp ñëpp la làmbaayol ñëpp la làmbool mhm. ñëpp ko war a bu fekkee lu ñu woor la ñëpp war a woor ñëpp a ñëpp a wax kenn koo ko gis di ab jullit dañuy jàpp ne waxam jooju ne des ko sukkandiku donte nag loolu dañoo wax ne bu fekkee loolu ci dugguteg weeru koor gi la waaye bu dee ci korite gi moom kenn rek doyu maanaam ci kumte gi la waaye ci korte gi kenn rek kenn rek doyu ci mhm. loolu mooy wax bu njëkk bi waxum ñaareel bi mooy déedéet suuma li ruyat yi kenn ku nekk rek ci sa bopp nga waa waa Séné waa Afrique wala waa Sénégal dañuy sukkandiku ci seenu gis waa mhm. Arabie Saoudite sukkandiku ci seenu gis waa Italie sukkandiku ci seenu gis ndax boo xoolee ñattari yoon am na benn éclairage d'heure bu dox seen diggante boo xamee ne mhm. bu xaw a xëcc la ñii léeg-léeg ñaari ñaari waxtu ñu rawante léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy dem ba ñeenti waxtu am na ci réew yoo xam ne sax nañ mat 12 heures am yoo xam ne mën na ay bis léeg-léeg tey bis bi nga nekk fii euh, tey jii di di di di nu mu tuddati euh, tey jii di dimanche mën naa nekk alterné ci ñeneen am na ñoo xam ne gaaw la nekk ci ñoom mhm. kon ñooñu mënoo jàpp ne wenn weer rek ci ngay mën a sukkandiku ci ñoom mhm. kon foofu borom xam-xam dañuy wax ne kon réew mu ñu nekk rek dañuy sukkandiku ci seen gisu bopp mhm. seen gisug bopp léegi nag fii jamono toll bu njëkk nit ab julli daana wax dara jullit ñi jàpp loola gëm ko ndax wóolu guñ wóolu seen moroomum jullit ak it néew gu wax lu dëgg néewoon ak sax wax loo xam ne lu dëgg te amoo beneen intérêt ca ginnaaw mhm. waaye bu ñu xoolee suñu jamono ji nit dana wax loo xam ne wér na ko lu dëgg mu nangu caa teg bakkanam te la muy wax du wérut mhm. la muy wax wérut léegi nag kooku boo ko doyloo ci sa diine sëñ Seex naa wax na ko léegi ne koo doyloo wut sa alal doo ko doyloo ci sa diine te loolu bëri gum bëri tax na mënutoo wax kenn ku wax rek na gis naa ko mhm. gis naa ko nga gëm ko léegi sax day wax ci dëkk sàngam ne gis naa weer wi am ku tool cee dëkk ba mu ba mu dëkk mhm. ne déedéet gisu ko gisuñu ko ñun mhm. wala mu ne suñ diw gis na ko suñ diw génn def déclaration ne man gisuma ko mhm. léegi loolu nag bëri gi muy bëri dana dem ba bu ab jullit waxatee dara di kenn te amul ay seede ay finde doo ko doo ko doo ko mën a gëm tey réew mu toll nii mu toll nii Sénégal ak yitte ji nga xam ne surtout dañuy dañuy jaajëfal waa Touba ci yitte yi ñuy def ci weer nga xam ne séntuwuñ ko rek ci weeru koor rek wala weeru koor rek ñoom fukki weer yi ak ñaar yëpp am nañ commission boo xamee ne ñooy taxaw di fii ci penk ci sowu jumaa ji mhm. di ko séenu ba pare am ay correspondant fu nekk ci réew mi mhm. di jokkoo ak ñoom ñu maandu ñoo xamee ne doyloo nañu leen mhm. ñooñu li ñu sukkandiku ci buñ ko gisee gis nañ ko kenn ku ko ci waxte mu wër ñu jàpp ca loolu noonu kon ñoom yëmuñ ci wenn weer rek dëkk bu mel ni réew mu mel ni Sénégal nag hmm. mënuñu fee nekk mu ak ni mu toll nekkuñ ci nawet niñ ko mën a waxee asamaan si lëndëmut wala bu hmm. lëndëm eggu ci yenn yi benn gox dong dong dong bu ndaw rek mën a gis réew mi mën a gis weer wi hmm. leneen des ci réew mi yëpp nga xam ne gox boobu ko gis ci réew mi mur un pour cent ci ci Sénégal gi yëpp kon loolu xel sax da ko nangu waxuma laag nag waxuma laag nag daa mel ni ca um tëgga ca kum tëgga euh, am na ñu ñu ne dañ koo gisoon te ci benn quartier bu nekk ci Dakar lañ ko gisee ah waaw benn quartier maa ngi sax ñu ciy faral di tooñ di di xaaj réew mi di naan waa Sénégal ak waa quartier sàngam boobu noonee waaw ah, xam nga loolu loolu lu xaw a xorom la ba ne fi lañ gis weer ñooy ñu um ca mhm. donte nag ñoom nit ki bu sukkandikoo ci diine jàpp ne li muy wax diine la dañ koy bàyyee ak li nga xamee ne moom moo ko doy ci diineem yow it nga mhm. def li la nga xam ne moo la doy mhm. waaye nag bëgg ak wuute Mm-hmm. ak bëgg ak fés warut yóbbu nit ki muy sacrifice muy sacrifice euh, muy sacrifier euh, mm-hmm. jaamu yàlla nit ñi. Mm-hmm. wala sa mbiri diine wala am loo xam ne yaa ngi koy yaa koy séenu ci ginnaaw. diine li wax leer na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne suumu li ru'yatihi wóor leen ci bu ngeen ko gisee. gis googu nag bu ëpp ci borom xam-xam yi dañoo wax ne. ci bëtu gisu bët lay doon télescope yi ñuy jëfandikoo waaw loolu maa la koy laaj sànq la naan la ndax télescope yooyu mën nañ koo jëfandikoo am na ci seentu weer am na ci ñenn ci borom xam-xam yi ko nangu ndax dañoo wax ne science mm-hmm. ak diine mm-hmm. waaye am na ci ñenn ci borom xam-xam yoo xam ne dëppoo wuñ ci mm-hmm. te li ëpp ci ci mën nañoo wax jàpp ne li ëpp ci borom xam-xam yi gën a dëgër sax loolu lañ wax mooy gis ak sa bët boo gisul ak sa bët jëru ngay jëfandikoo benn jumtukaay jëru ngay jëfandikoo benn jumtukaay boo bëggee bu bu fekkee sax day am ko wax ne day am ko wax ne euh, jamono yonent bi sallallahu alayhi wa amaana jumtukaay yi ak euh, développement wala euh, avancement bi ni mu amee ci wàllum technologie mm. amutoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaaraka wa taala umpalewul woon loolu bu doon lu a xam la wala lu mu war a wax la mm-hmm. dana am jumtukaay bu mu feeñal ci jamono joojo bu dëppoo ak jamono joojo noonee ñu di ko jëfandikoo su boobaa mm-hmm. mënees na koo xiyaas ci suñ jumtukaay yii nii mm-hmm. kon loolu dafa mat a dafa mata a bàyyi xel gisug bët lay doon li ci amaat solo it rek nag mooy duggute gi maanaam umte koor bokkut ak war gi li wóorloo nit ñi wóoruloowu leen li wóorloo nit ñi wóoruloowu leen hmm. mën nañoo wax ne wóorloo leen sax moo gën a yomb ci wóorloo leen moo tax kon lu mel ni weeru korite daa mat a sonne bu baax a baax a baax a baax ci gis gu wér gu wóor hmm. lépp a sol nag mooy jullit ñi nañ seet seen diggante ak seen borom ci fuñ mën di nekk hmm. rawatina ci mel réew moo xamee ne daanaka du dara ci yeneen réewu Afrique yi bu ñu dee xool réewut génn gi population bi bëriwut génn bëri bi kon war nañoo mën a am benn kuutoo booloo goo xamee ne mhm. ni ñuy séentoo weer mën nañ koy àndandoo dëppoo ko te teg ko ci mhm. diine mhm. ak ànd ak aada yi ñu fi fekk ndax léeg diine dana fekk aada ba pare nangu aada yooyu ne bu fekkee aada yu yu yu baax la loolu mën naa nekk aada yooyu noonu ak diine yi dëppoo ko julli ñëpp ñu boole da xam ne yàlla rek borom tabaaraka taala moo leen tax a jug waaye du ay xiiroo du ay ŋaayoo ndax kenn amul loo xam ne da ko mën a am ci weer wi te sa morom du ko ci am lu jaamu yàlla ga nga ko def te selloo ko sa diggante ak sa borom ndax loo boo ko gisoon te woor at mi yëpp wala woor wér yëpp te defoo ci dara lu baax yàlla du la ci fay dara ki ko gisut di def lu baax sax wala ki nga xamee ne Euh, xaar nañu ne ko weer waa ngi nii wala beeru ne fee di woor di def lu baax sax la ma cay am yow amaane yow mi ko gis te defoo ca dara doo ca am doo ca am doo ca am dara mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne suumu li ru'yati daal di wax ne bu fekkee nag da ngeen koy séentu asamaan si xaw a lëndëm ba mënu leen koo gis su boobaa kenn tegu leen ne leen faaw da ngeen war a muuri asamaan si wala da ngeen war a ànd da montagne wala da ngeen war a dagg garab yi wala da ngeen war a def nangam déedéet gisu leen ko gisu leen ko donte donte nuance yi da ko nëbb sax donte nuance yi da koo nëbb mhm. da koo nëbb boobaa wóor leen mottali mottali saxbaan bu dee ci kumte la fanweer mhm. Mhm. wala mottali leen weeru weer weeru koor wii nii fanweer te bañ a sukkandiku ci ñàkk gis goo xam ne ay wax yoo xam ne nañ ko wala nga jëfandikoo loo xam ne parce que yi ñuy jëfandikoo parfois man laa woon loo xam ne bokkut ak li nekk ci kaw asamaan si loolu it comme day luy am la te lu soxut xam-xam boo xam ne soxut dee si sukkandiku jërëjëf sëñ Cheikh euh, li nga wax am na solo lool ndax euh, ni nga waxee sànq ne Sénégal yaatuwul yaatuwaay boo xamante nii war nañ fee am jafe-jafe ci wàllum weer mhm. su fekkente ni nit ñi dëgg rek lañ bëgg tey diine moom moo leen ñor mhm. tey it seen aqulaay taala lañuy doxee ndax Sénégal su ma juumul cent quatre-vingt-seize mille sept cent euh, kilomètres carrés yu teg la mhm. tuuti population bi quatorze millions quinze millions jàpp seize millions la ñuy wax fi mu toll nii li ci ëpp ay jullit lañ li ëpp ci réew mi ay jullit lañ su fekkente ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi sàmm bu baax a baax wala ñu jëfee diine ji bu baax a baax mm-hmm. ni ko suñu boroom santaane mm-hmm. ak it ñu koy matale mm-hmm. te lépp lu ñuy wax mu nekk lu leen wér te ak euh, maanaam wax lu dul dëgg nekk loo xam ne dañ koy tegee fële yaakaar naa boobaa benn jafe ci weer wi waaye ni nga xam ne tamit Touba noonu lañ koy defee su fekkonte ne réew mi yëpp ñu ngi koy toppee noonu benn jafe-jafe du ndax ñu bëri dafa laaj tamit ñu ko leeral ko ñu xam ne ñu bëri dañu jàpp ne Touba liñ naan ndigal moo fa dëgg la dëkk la boo xamante ni ndigal moom mm-hmm. loo xam ne ka koy joxe dafa nekk koo xam ne ku ragal yàlla la mm-hmm. koo xam ne lépp lu muy joxe lu mën nañ ne lu bàyyi ko fa lu bàyyi ko fa suñ borom lay doon mm-hmm. ndax lu la yàlla suñ borom digal lay doon su boobaa ndigal loolu la ñuy jëfee mais il faut ñu nit ñi comprendre ne Touba dafa am commission bu fi nekk boo xam ne sànq sëñ Cheikh naa mu koy leeral commission bi ci jumaay Touba ji la nekk commission bi weer wu ne muy weeru weeru weeru weeru tamxarit muy weeru màggal muy weeru gàmmu muy weer yi ci topp yëpp rek gaamu rek kàddi gaamu ba at mi jeex. Mhm. bu ci nekk ñaar fukki fan yaak juróom-ñeent su jotee dañuy dajaloo fii ci penk jumaa ji séntu weer wi. Mhm. laata ñu koy séntu sax dañuy wax ci jarayu jumaa ji nañu maasee séntu weer wi. Mhm. ku ko gis. tam ci lu wér mu jotale xibaar bi. ci ci ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci ci ci jumaa ji. waaye it ñuy jokkoo seen correspondant yi nekk ci biir réew mi nga xam ne fu ci nekk gox bu nekk am nañ fa ku ñu wóolu ku fa teg koo xam ne. bu amee ay xibaar yu wér ca bërëb boobu. Mhm. dana leen ko baaxee ñoom it ñu mën koo euh, jot jotale waa Muxaddamatul ma mhm. ak commission bi fi nekk. Mhm. ñoom ñu mën koo ñu mën koo saare. loolu yaakaar naa day liggéey bu am solo boo xam ne bu réew mi yëpp defoon noonu. benn jafe-jafe du am ci li nga xam ne moom moo di moom moom moo di weer wi. waaye it euh, yow lan nga jàpp ne fi toll nii. tey euh, état bu Sénégal muy nguur gi est-ce que jàppoon ni am na ci benn responsabilité wala benn taxawaay boo xam ne waroon na ko cee am. ngir euh, taxaw taxawaay boo xamante ni képp koo xam ne jëm ngaa jóg ndax yaakaar naa jóg ne weer feeñ bërëb sàngam te loolu feeñul yaakaar naa loolu féewale diine gi la féewale féewale jullit yi la ndax boobaa xëy na mën naa am ñii gëm la ñi bañ laa gëm mais est-ce que état bu Sénégal muy muy muy muy nguur gi amuñ ci part de responsabilité ngir jóg war a mën a saafara lool mu jeex benn yoon ci réew mi ndax am na réew yoo xam ne seen i président ñooy jóg taxaw ci loolu am ay commission yu yu yoo xam ne la ñuy teg ñaari julli du fa am ñaari korité du fa am ñaari gàmm du fa am benn lépp benn benn événement lay doon. Mm-hmm. waaw sëñ Fallou ci jërëjëf ci laaj boobu xam naa dama lay <coughs> bala maa jiw ci laaj bi damay euh, damay mottali rek ci liñ doon wax léegi ci gisu weer gi. Mm-hmm. li ñuy wax wuuteeg gisu séntukaay li ñuy wax ixtilaaful mataali lu am la lu wér la lu sax la. Mm-hmm. ku ñu wax kuray bu euh, nee na umul fadl da ko mos a woon benn bis saam ci Muawiya radiyallahu anhu mu dem ci Muawiya ba dëpp ñëw Madina fekk fa Ibnu Abbas mu laaj ko ne ko foo jóge mu ne ko sàmm mu ne ko ñun te gis nañ weer wax foofa gis nañ weer ci guddik ajjuma waa saam woor nañ Muawiya woor na Ibnu Abbas ne ko nun de gisuñu ko teewul noo ngi ni wóoruñu waaye ba ci samedi gi bisu samedi bi ñu ko gisee ci lañuy ci la ñuy dog di dog di um kon ñoom bu fekkoon dañuy wax ne bu fekkee euh, bu ko nit gisee feere yow day war ci yow nga woor su boobaan kon Ibnu Abbas day sukkandikoo ca waxi kuréel bu jooju noonu daal di ànd ak moom ca la ñu gis ca la ñu weeroon gis ca ca saam kon dañoo dañoo war a xam bu wóor ne bu wóor a wóor sax ne lu ixtilaaful mutaaliyan lu am la maanaam réew mu nekk nag dafa réew moo xam ne ñoo bokk fenkuwaayu jant rek réew yi nga xam ne ñoo bokk fenkuwaayu jant même heure mm-hmm. ak ak sowukaayu jant réew yooyu mën nañoo ànd di séentandoo weer wala di sukkandiku ci seen ci seen i morom. mu mel ni fii Gambie waaw lu mel ni Feggal nga xam daanaka ci biir Sénégal la ku ko gis daal gis yooyu gis na réew yëpp daanaka koo te gis te dëgg-dëgg rek gis na ko ci biir gis biir réew mi mhm. euh, laaj bi mooy euh, état bi nan la ci war a taxawee gis nga état dinaa d'accord ci dinaa gis ñaari da d'accord ci état mën a taxaw régler problème bu mel nii bu fekkee état bu jub la di doxal yoon ragal ànd ak ragal yàlla mhm. pas état boo xam ne day dox ci wàllum dictature not nit ñi bëgg a kii yooyu noonu rek mhm. état bu mel noonu loolu loolu loolu lékkut wala sax état boo xam ne joxul cër diine mhm. joxu ko benn wàccuwaay ba mu ko war a jox nga xam ne bay wut xel ay mbiram ci diine mhm. ko baa mënut a jël rek obligé nit ñi ne leen faaw da ngeen di war bi sàngam wala da ngeen di wax mhm. loolu lu diine saxut waaye bu fekkee la muy wax teg na ko ci diine te sax mën naa obligé nit ñëpp ñu tënku ci diine tënku ci benn commission boo xamee ne état bi moo leen fi teg waaye nag li ma ko waxee woon léegi day tënku ci njàngalem diine ñu koy defe ni ko diine sant santaane képp koo xam ne daa feddi géew te feddi géew ba mu def amul ci fenn fu mu ko teg su boobaa ñu teg ko ci ay daan hmm. li feeg loolu amul ay saafara mu tam waaye bu ñu jékki-jékki am ko xam ne day nekk ba euh, sibi xutaan hmm. wala am koo xam ne day nekk ba Kaffrine ne gis naa weer wi toog ci am néega amaana sax génn séntu jiwut weer hmm. daa yor téléphone am ne gis naa weer wi julli ñëpp sukkandiku ci wala ñëpp ci julli ñi sukkandiku ci daal di woor mu jékki-jékki ne ah man kat la ma gisoon damaa mel ay jeneer la wala damaa juumoon damaa juumoon kooku dañ ko waroon a woo ba mu ñëw ñu teg ko ci ay daan yar ko ca ba ëllëgee keneen du ñemee def loolu suñu demoon ba loolu am rek nga xam ne kenn ñi mënut a toog jékki-jékki ne gis naa weer wi te dégg ko fenn su ab jullit waxatee ne gis naa weer wi su boobaa dana neex a gëm su waaye jullit ñi danañ ca danañ ca a sukkandiku mm-hmm. waaye maadaama li feeg mi ngi am rek waxte yàlla tax amatul mm-hmm. wala wax ngir ay intérêt moo tax nit ñi di wax mm-hmm. wala wax ngir bëgg yàq ndax loolu day am wala wax ngir bëgg a féewal ndax am na ñoo xam ne booloo gi booloo gi am ci yenn ci këri diine yi neexu leen nuñ fexe ba loolu yàqu rek dañuy dox ngir jëm ca dañuy jëm ca loolu noonu kon loolu responsable état bi la ndax nag nekku na sëñ Muntaxa mi nekk fii ci Touba moo jékki-jékki ne ku gisati aw weer sànga wax ne ne feeñut feeñ na te feeñut nañ ko yar mm-hmm. déedéet ndax bokkut ci ak njabootam mm-hmm. amaana bu bokkoon ci ak njabootam sax mu woo ko jox ndigal mm-hmm. nekku na sëñ Babacar Si mooy def loolu nekku na sëñ Mahi Ñas mooy def loolu wala keneen ak keneen waaye loolu rôlub état bi la du rôlub kilifa diine yi kilifa diine yi seen mooy ni nga ko waxee ci tàmbali bi fexe nañ ba ci ñoom booloo nañu sëñ Seexuna dafa wax lu am solo mooy lu tax duñu wute ci gàmmu ak màggal ak yooyu noonu. Mhm. gis nga ñoom ñu dañoo bokk bëgg-bëgg dañoo bokk luñ bëgg. Mhm. te gisuñu ak wu njariñ lu nekk ci wuute ci yu mel noonu. Mhm. waaye bu fekkee ne yow li feeg wuute woo duñu la rek faaw da nga fexe noo wuutee. xam nga xam nga li ma bëgg a wax léegi. la xam. faaw da nga fexe wuute am. xaw ma nag noo koy fexee da fexe teg ko ci. néewee nekk minorité bala ñu xam nga wuute am rek mhm. faaw da nga fexe da nga fexe da nga fexe wuute am mhm. amaana nag loolu dalut dalut commission bi nga xamee ne moo nekk fii ci Touba ànd ak ba nekk Tiwaawan nag yeneen yi nga xam ne ñoom chaque jour saa su nekk ñu ngi déggoonte déggoo mhm. ak ragal yàlla ak maandu giñ ci am ba yemale wuñ ko ci wenn weer buñ ko yemale woon moom weer woowu rek li mhm. waaye dañ ko yemale ci weer yëpp mhm. kon loolu lépp lu wax ci weer wi rek dana neex a jàpp dana neex sukkandikoo waras na cee mën a doyloo te it bu fekkee joxe ndigal dafa am te joxe ndigal loolu teguñ ko ci bakkan ka koy joxe yu ragal yàlla ba pare mu ñaaxaat leen soññaat leen ne leen lu ñuy def nañ ko def ci diine mhm. su boobaa buñu bu joxee ndigal it wares na ko mën a diglu sëñ Fallou mhm. jërëjëf sëñ Cheikh xam naa dañuy recevoir rek euh, soxna maam Issa Mbacke bintu Serigne Modou Fatou Khary mi nga xam ne mooy jëwriñu Euhlou Café ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci euh, résidence Khadimou Rassoul ci euh, diirub weeru koor gi mhm. mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la liggéey bu mucc ayib la boo xamante ni macha allah Euh, dañ ci def luñ mën ak luñ mënut at mu jot fii nga xam ne moom moo di ci résidence Xaadim Rasoul kon euh, soxna si ñu ngi lay nuyu baax di la ziara euh, di la dalal baax ci plateau bi di la balu di la balu di ñaan si yàlla suñu borom jéggal ñu ci koor gi nga xam ne moom lañ nekkoon te àndoon koo yéen fii ci résidence Xaadim Rasoul ñu baleen ngeen nuyoog téléspectateurs yi. billah mina bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah kon ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di santaat Serigne Touba Mbacké sunu yaakaari tey ak ëllëg dellu di yeesalaat sunu njëbbal bu baax a baax ci Cheikh Massamba mi sunu buntu ci Serigne Touba di nuyu nuyoo jullit ak moromu jullitam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di baal àq te di leen baalu àq di ñaan ñu teewe ko ay déwéni déwéni déwén kenn bañ a wopp kenn bañ a manqué lépp luñ ci jëf yéene ko ci suñuy xol rek suñu borom nangul nu ko te fulal nu ko barke borom Tuuba euh, soxna si gis nañ ne fii ci euh, résidence Xaadim Rasoul euh, yéen a fi amal liggéey bu am solo ci koor gi ndax bëri na ñoo xam ne dëkk bii di Touba waxtu ndogu da leen di fekk ci mbedd yi am na ñoo xam ne sax mën naa ne dëkkuñ ci kër yoo xam ne war nañu mën a am ndogu waaye dañ koy yaakaare fii ci kër Serigne Touba gi yéen nag ngeen ciy def liggéey bu am solo ñu bëggoon a xam liggéey boobu fan la bàyyeekoo ak euh, kañ ngeen ko door. jërëjëf ñu lay sant bu baax ci laaj bu am solo boobu liggéey bi ñu ngi ko door le 2013. di suñu Seydi Muxtaar yëkkate yokk jumaa ji. Mm-hmm. yokk bële ndax yàlla dafa dogal bi ñuy fondement yokk jumaa ji. muy soroor yi. waaw muy soroor bi fii mm-hmm. dëkk Sëñ Saliou. Mm-hmm. boobu dama daan ñëw di leen indil ay xéewal saa su nekk añ ree ndékki ak ay kafek ngoon ay beñ ak yëpp ak ay galaas ñu di ko def di ko def ba weeru koro fekk ñu fa ñu xalaat ne comme ñoom amuñu fu ñuy ndogoo mën nañ leen war nañ leen dem di leen yóbbul ndog ndax dama faa dem benn bi fekk ñuy ndog ndog lu yërëmtalu mën leen lii de kon dañoo war a continuer lañ doon def bañ umagut koor di leen indil ay ndog ñu daal di koy tàmbali nag di leen yóbbul ay ndog keroog sax dañu ba ma leen njëkk a yóbbu Hizbut Tarqiyyah ñoo ko saaf seen oto ñuy segg kafe gi tey ma dem ñu génn ko jox ma ko ma boole ko ay xéewal dem yóbbul leen ko mhm. ñu ndogoo ñun lii de lu am solo la soxna si lii baa dina continuer man leen fas nañ ko yéene ma wëlbatiku di ñibbi si romb kër sëñ Tuubaa gi fekk bu sëñ Alaaji Mbàkke yàlla na ko yàlla yërëm te dolli ko leer mu ma foo dama heure bi bisu kumte gi ma ne ko man damaa ah, yóbbu waa jumaa ja ndog te fële la ñuy jëlee ci ndogu ci xitma xitma mu mm-hmm. xaddimatu xitma fële la ñuy jëlee ci ndogu kon kay nga ñuy indi ndogu mm-hmm. ma ah loolu de xamewu ma ko woon noonu waaye kon bu subaa dinaa ko def ñaari ndogu ci suba ga man la ma doon yóbbu ñett nit laa ndul ma def ko ñaar man leen yéen continuer leen jumaa ma lal fi ci ëtt bi maag sëriñ ndogu ak ñi fi jotoon a nekk mm-hmm. bañ demee pare na ci laa woo jawrin yi ñoom Abdoulaye Hadj ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi waa fédération Ahlu Café bureau bi man leen nañ leen waxtaan ndax ñun ñëpp nekk ci suñ kër yi lal ko ba mu jekk xeetu bernde bu nekk ñu tegal ni ko bàyyi ëtt kër sëñ tubaay yi mu ñëw ko loolu rafetut te mbooloo ma ko def am na fi confédération bi ay cent cinquante daayira la mhm. kon nañ tànn ay daayira ñu ni kon nañ tànn juróom ñeen fukki daayira ñett fanweeri daayira yi ñu yóbbu ko ci jumaa ji yokk jumaa ji fanweeri daayira yi ci ñu indi ko ci kër sëñ tubaa gi mhm. yàlla dogal kër sëñ tubaa gi daaru ma nama nit maa yor entretien ba mhm. fii tamit kër sëñ tubaa gi ci jumaa ji tamit entretien bi 2003 ba léegi maa fi nekk mhm. donte am na ñu ma fekk ak ñeneen ñu ñëw fekkaat ma fi waaye ñun suñu koo génn entretien bi liy setal kër gi ak fóot dara bi ak fóot day ci lañ nekk ma ne comme kër sëñ Tuubaa gi tamit am na ñu fa ne te waa garage ba fawu kër gu wàccuwaay la kon nañ ko ca boole loolu ci lañ dem yóbbuwaat fa fanweeri daayira muy juróom-ñeent fukki daayira 90 daayira mhm. nga xam ne diiru weeru koor dinañ def quatre-vingt-dix ndogu yoo xam ndogu bu ci nekk li koy def dina mat cent personnes te xaalis bu bari lañ ciy fere te ndogu bu ci nekk ku ko def ko nag mbooleem xeetu bernde boo xam dinañ ko yóbbu ndax kenn bëggu sa morom dàqale la noonu lañ koy defee di ko def ba sëñ Sidi Moxtar wàccu liggéey yal na yàlla yokk leeram tas ñu ci barkeem sëriñ Muntaxa mu baax mii nag ñëw toog daal ni moom fii lay ndogoo ci ëttub sëriñ Tuubaa bii mm-hmm. dundal pencu maamam mii mm-hmm. kon ngay liggéeyal sëriñ Touba ci tool ba sëriñ Touba ñëw fekk si la ke loolu taw feex la dëgg la bi mu dikkee isbu tarxe yi nga xam isbu tarxe yu baax yi nga xam fa sëñ mën taaxal ne ñu ànd kook ñoom ñu ñëw tamit bëgg ànd ak sëñ bi njàngum xasindam indi seeni bernde mhm. ñoom it bañ dikkee ñu def ci lu rafet daal di ma liñ la fekkoon dañ la koy yokkal waaye dañ la ko wàññil mhm. daal di jël lépp li la alxuraan di wax ar rijaalu xawaamuuna alal nisaa loolu lañ def xam ne man jigéen rek la ñu daal di jël lépp nag daal di ko tegaat ci sama loxo daje mm-hmm. machine bii ñuy séddale café gi ñoom ñoo ko moom waaye sëñ aatu yàlla na ko yàlla yërëm te dolli ko leer mu lépp lu fi xeetu café nañ la ko bàyyi ak xeetu lépp lu ñu indee teg ci suñu loxo ñun ñoo koy indi ñoo ëpp li ñuy indi waaye nangu wuñ cee fenn loolu mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal sëñ aatu yàlla yokk leeram jàmbaar ji fi nekk nga xam ni sëñ bi moom du juum ñoom ñaar kenn mësuleen leen woon a xàmmee kon toujours dama naan euh, sëñ Youssou moo ñàkk wala ñun ñàkkuñu ndax na sëñ aatu taxew woon rek bu doon def benn mi ngi def fukk mhm. kon nañ ko ñaan mu yàgg a jiite liggéey bi ñu yàgg topp ci ginnaawam rek liggéey sëriñ Tuubaa lii nag mooy cosaanu ndog yi mhm. waaw waaw baax sëñ Cheikh ñu bala rek yu fekkee am nga question yu macha allah jërëjëf soxna si ci leeral yu am solo yooyu noonu ci cosaanul ndogali yàlla na yàlla barkeel ko te gën a gën koo saxal gannaaw bi nga xamee cosaan li soxna Mame Aïssa am nga loo jund sax ci leeral gi waaye doxin wi dëgg-dëgg naka lay demee fii ci kër sëñ bi ndax dañuy daa am ñoo xam ne dañ leen di woo ñu ñëw si wala koo xamee ne day doon dox ci mbedd mi ba yëg na ndogoo nga fi rek mu ñëw ndogoo fi ak naka lañ koy organiser loolu it bëggoon nañ koo xam waaw organisation bi mucc ayib lañ ko organiser ndax xam nga xam nga doomu aadama dañoo bëgg Serigne Touba mm-hmm. gis nga bañ xamee ne sëñ Mountakha fii lay nekk kenn bëggatu ta ndogoo sa kër donte am nga ndogaloo nekk sa kër sax waaye bu doon ñëw di guux fii benn guuxub kafe ak benn tàndarma ñu xam ne sëñ Muntaxa nga ci kër gi moo leen gënal ñu ko seen kër tax dafa dem ba ñun bés am na délégation bi foo tax dogoo ci daayira biir dëkk ak yi war dëkk bi ba ci dëkk àll yi nga xam ñoo dëkk bi ba ci ay waa Dakar ak dëkk yëpp bis bi sax dañuy jàpp bis ñoo ñoo ñëw ànd ak sëriñ bi ci xasida yi daal di fay ndogoo ba naafile daal di jëlaat seen oto dem hmm. ay délégation yu fasanti ko fu nekk nit jóge na fa ci àdduna bi ñëw di ndogu si fii ngir rek di barkeelu si ci kër gi ndax li fi sëñ Muntaxa nekk kon fii mu egg tey kawe na suñ jot te bañ koy tàmbale mën nañ ne benn cafetière bu café lañ ko tàmbale woon waaye dem nañ ba ay tonni tonni suukar la ñuy jënd ak ay tonni café ci biir koor gi ñoo ngi ciy cité kenn koo xam ne danañ ko ñaanal muy mettre ma dikke ñaa moom wax dëgg yàlla mi ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ci ñun ndax moo am yëg-yëgu woo ma ne ma damaa bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa dama cee am yëg mm-hmm. moo jël sama numéro woo wax ma ko waaye boobu ba léegi mi ngi indi café gu bari ak suukar te bëggut ko ko wax loolu nag plateau bu ma dem dinaa ko wax ndax soxla nañ ay ndimbal te moom mi ngi ciy jàpp bu baax a baax ndax café ak suukar kenn ku ne xam na ne seer na mm-hmm. te ay tonni café la fi indi ay tonni suukar la fi indi ñoo ngi sant di ko ñaanal mu yokk ko ba yëg ko mm-hmm. waaw waa waa kay jërëjëf jërëjëf soxna soxna si mu mel ni yaa ngi koy yaa ngi koy sax nag ci sa mujjantalu kàddu ci sëñ Mady Kenya moom liggéey boobu nga xam ne moo ngi ko ciy def ci loolu moo ñuy poussé sax ñu bëgg xam maanaam ahlu café li muy def ak ndogali ni muy amee solo ni muy yaatoo fan lay jëlee ay financement yoo xamee ne mooy waral mooy def euh, ndogo yu am solo yii nii. ahlu café moom seen financement ay ndaw lañ yor ñun ñun ñun ay ndaw rek lañ ay junni junni ndaw ñoo topp ci ñoo xam ne dañoo dañ ak am na ci ñoo xam ay étudiant lañ ay étudiante ay bureau karaat ñu ngi ci lépp a ngi ci biir mm-hmm. ñu jàng alxuraan ba mokkal ay sëriñ daara ak ñi nga xam ne dañoo nekk extérieur ndax euh, fédération bi internationale la mm-hmm. kenn ku nekk rek di nga feeñal sa yéene fenn fu nekk rek kenn ku ne loo am indi nga ko ñu boole kook li ñu am ñun def ko addi Sëriñ Tuba mm-hmm. ñun nag man sama alal bopp man dama koo jaayante def ko addi Sëriñ Tuba lépp lu mu am rek ci liggéey bu Sëriñ Tuba bi la jëm mbubb sax boo gisee ma sol ko ko koo may waaye ko ndax loolu sama or laa njëkk a jaay sama ceeno or 700000 def ko jëndee ko café def ko ci liggéeyu Serigne Touba bi or dama koo seexlu ci kaw fii ci àdduna dootuma ko laalati ci sama yaram bi macha allah macha allah waa fédération Orlu Café leen di sant bu baax góor ñeeg jigéen dencuñu dara dara lañ denc lépp luñu am def nañ ko mhm. ñoom doxeenu Baye Fall la ñuy dox mhm. dañuy ñëw def ko ni ko comme Baye yi dafa te bu leen duñ ndogu sax duñ ca jaar bu nit ñi ñu ngi taxaw buñu paree ba raxas mhm. ne tamit ñoom sëñ Modou Mbaye jiite débranché saa bu ñu branché pare di raxas kër ga ka bale ñoom ñu leen di ñaanal ndax set dafa am solo surtout rawatina war a war a faa bàyyi lenn lu taq te kër gi saa boo fi duggee rek buñ paree ba génn da nga yàq nit mosu fee dugg ndax set ci kaw ba mm-hmm. suuf nag mm-hmm. waaw macha allah jërëjëf ci euh, naa ne euh, bu ñu ñëwaat rek ci liggéeyub ahlu café ndax yaakaar naa liggéeyub ahlu café yëmul rek ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu def fii ci koor gi donte bu la ci ndax am solo la loo xamante nii Euh, ci diirub ñaar fukki fan ak juróom-ñeenti fan weeri fan yoo xam ne doo jélal bés bu yàlla sàkk nga mën a génne ndogul am solo jox ko ay doomi aadama ñu koy ndogoo te xàmmewoo ci kii murit la wala kii ci beneen tarixa bokk maanaam képp koy jullit képp ku waroon rek bu ñëwee fi dana ndog am na ñoo xam ne sax mën nañ bañ a woor waaye bu waxtu ndogu jotee bu ñëwee fi daañu ndog te daañu ndog ndog loo xam ne mën nañ ne am na ci ñoo xam ne bu ñu demoon seen kër duñ ko fa ndogoo ndax euh, jot naa fee ndogu ndax da ngay ndogu sax ba lekk ay fruits loolu lu am solo la donc ñu bëggoon a xam liggéeyu Allou Café Sëriñ waaw ci sax am na Tijaan yu bare bari def délégation ak ay xaadir ak ñëpp ñoo fii ndogoo fi dund ak sëñ bi xasida yi ndogoo fi macha allah nga xam ñoom xam nañ l'islam ji lépp benn la mhm. te Sëriñ dafa bari Tijaan de am na Tijaan yoo xam Tijaan yi Sëriñ Touba la xaadir yi Sëriñ Touba dëgg la te dañ fii lañ doon ndogoo saa su ne la macha allah léegi liggéey liggéey ahlu ahlu kafe ndax euh, ci ndog yi rek la yem wala am na yeneen liggéey yoo xam ne mu koy liggéey ci ci ci ci dëkk bi waaw ahlu kafe moom xam nga moom ay ñun ni ñu jàppee suñu bopp ñun ay jaam jaamaati Serigne Touba ñun ahlu café mooy jaamu daayira yëpp hmm. ñun ko soxla rek boo ñëwee ñu liggéeyal la def ko addi Serigne Touba hmm. ndax xam nga ñun ñoo ngi yëngu ci mbalem Touba mi mbalem Touba xam kenn gis nga kenn ku ne gis nga ni ci taxawee hmm. te ëtti Serigne Touba yëpp fu ci mel ni daaru musi Mbàkke Kajoor daaru salaam daaru minam daaru yëpp fu ci fu ci ak màggal xew daaru karim dinañ dem bale ji dëkk ba ba mu set ñu tonni mbalit ba mu set dellu siwaat ñibbi si bu si màggal ko jotee ñu dem def fa ay mberde berde def ko addi Serigne Touba. Mm-hmm. boole ko xam kër Serigne Touba yi nee naa léegi ñun ñoo koy entretien. Mm-hmm. boole ko di taxawal ay daara ñun tax mm-hmm. taxawal nañ 14 daara fukki daara ak ñeent yoo xam ne. 2000 enfants ñu ngi fiy jàngee ñaari junni nit. turandoo maam jaara yoo xam ne ci ndigalu sëñ moom moom taxaa la. mu ne ma foo ko taxawal na doon bànqaas ca Porokhane. loolu nag li ko waral mooy bi sëñ 2005 sëñ Moustapha Bassirou yal na yàlla yokki leeram sax suñu ci barkeem bi laajee maam jaara yi ñun dañoo dajal lu ma téeméeri maam jaara fekk daara ja la muy jël ñeenti téeméeri maam jaara ak juróom fukk la mhm. ñu ne dafa fees ma toog diiru bu ñaari at xale yi toog di xaar ma dem ci mun Muntaxa wax ko ko ni ko dajal na téeméeri maam jaara tax jigéen mënut a xaar mhm. su xaaree mën naa aase mhm. mu ne ma jox naa di ndigal nga ubbi leen ay daara tuddandoo maam jaara di ci jàng te foo ko ubbi na na doon banqas ci poroxaan ndi ko bind lettre jox ma si signé ko jox ma ma ñëw commencé njëkk a ubbi benn daara tudde ko soxna Aysatu Gaawaan bindu sëriñ Touba keroog sëriñ Abdoul Akim moo ànd ak sëriñ Cheikh Abdoul Latif ñëw léemu si daara jooju ubbi ko daara ñetti téeméeri maam jaara ngi cay jàng lu bari lu ma téeméeri maam jaara mokkal nañ fi alxuraan te ñi leen di jàngal mooy ñi jàngee poroxaan ba mokkal ba bind kaamil ñooñu la ñuy ñëw defal leen formation ñuy jàngalaat maam jaara yi nekk fii ba am nañ ci résultat bu mag a mag ba barki dem rek bi ñuy tari daara na Astou Gawane fukki jigéen tari nañ fa mhm. yeneen daara yi des noonu lañ ko def daara jee ci njaareem ñu tudde ko soxna Faat Jaxate mhm. maam Jaara ya fay jànge ñi ci bëree bëri mokkal nañ ba léegi ñoom ñoo yoraat daara ja di fa jàngale ci biir macha allah waaw daara yi nag dañ ko tuddee mi njabootu Serigne Touba gi mhm. soxna Astou Gawane tudd nañ ko daara soxna Issa Dieye waajuru sëñ Massamba tudde nañ ko daara soxna Aminata Boussa waajuru sa Abdou Khadir tudde nañ ko daara soxna Awa Boussa waajuru sëriñ Fall tudde nañ ko daara maam Maram Mbacke tudde nañ ko daara maam na Ndiaye tudde nañ ko daara Seydatuna Khadija tudde nañ ko daara noonu lañ ko toppoo ba ci soxna Binta Jaxate waajuru sëñ Moustapha Bassirou mhm. soxna Moomi soxna May noonu lañ ko toppoo toppoo ko ba mat fukki daara ak ñeent soxna Kunta mu Cheikh Madou Fall tudde nañ ko daara mm. am nañ daara joo xam ne ca la góor ñee jàng Sëriñ Fall lañ ko tudde ndax jaxasewuñ góor ñee jigéen ñi ñi lañ ñi ay wàcc di ñibbi lañ mm-hmm. ñun ñu ngi jàngal ñaari junni nit tërandoo maam ñu ci bari maam jaara lañ tudd ñe leen di jàngale maam jaara lañ tudd daara yooyu fii Touba lañ nekk ñeenti ni mi ngi Touba mm. daara soxna Aminta Bousso mi ngi Touba mm. Touba soxna Assou Gawal mi ngi Touba soxna Bintu mu Sëriñ Masamba mi ngi Touba soxna Kounda mu Cheikh Ahmadou Fadal mi ngi Touba. Mhm. soxna faat Jaxate mi ngi Njaareem. Mhm. soxna Anta Ndiaye Mbacke tudd ma ko léegi mi ngi Thiès. Mhm. maam Maram Mbacke mi ngi Ndande. soxna Khady Thiat soxna Momi soxna May ñoom ñu ngi ci ginnaaw Touba ci dëkk àll yooyu foofu lañ nekk. noonu lañ ko toppoo soxna Awa Boussa ma nga ca si fële ca côté Séeréer. ci ginnaaw Sadio côté boobu lañ ko taxawal. te foofa ñun ñoo fa njëkk taxawal daara ndax daara mosu faa am hmm. noonu lañ ko jopp daara yi soxna Binta Jaxate ñu ngi ko ubbi ca ginnaaw Kaffrine dëkk bu ñuy wax nguy xale yi bari ña ngi fay jànge du moo ñu indiwaat leen fii ñu eggale seenum njàng hmm. ku tudd Malick Wilane moo ngi ko jiite xam naa su ko su ma timoon këyit bi dinaa la tuddal tuddi daara yi hmm. yëpp a ngi dox nit ñaa ngi jàng alxuraan di mokkal di jàng mboolem xeeti xam-xam yëpp di leen jàngal yeneen jàngum àdduna lu ci mel nasaraan arabe anglais yëpp ñu koy jàng ci biir daara ji waaw. waaw macha allah lu am solo la xam naa sëñ Cheikh waaw ñu bala nga. waaw soxna soxna si macha allah liggéey bi am na am na solo lool. ci eh, ahlu café turam ni mu yaatoo ni nga xamee ne wax nga léegi nekkul national rek waaye international la ndax ahlu café bokk na ci ay projet wala tàmbali na ko wala bëgg na ko naal na ko mu def centre de formation boo xamee ne ñu nekk ci biir ahlu café ak ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci fukki daara yeeg ñeent yi jàng pare ñu wëlbatiku di leen defaraat ay formation ngir bu buñ génnee ñu mën a am lu ñu liggéey ba taxaat ñu gën a mën a mën a jàpp ci liggéey na ci ay euh, sax mën naa ne la ñu ngi ci ndax Ahlu Café international ba pare sax ONG a mhm. suñ récépissé génn na daaw léegi ONG Ahlu Café lañ am mu nekkee international ñu dem tam euh, ci biir ñu demaat ci en même temps entreprise mhm. boo am ne ay ouvrier ñu ngi ci biir lépp a ngi ci biir ñu di leen formé tey jii boo boo doon tabax lu kër mën nañ la ko tabaxal ba mu te lépp ci biir Ahlu Café lay doon ba jox la caabi ca mhm. loolu tamit ñu ngi ci waaw kon formation boobu ngay loolu ñu ngi ci biir lépp dafa dañoo àndandoo liggéey bi rek muy jóg ndànk nag ñuy former xale lépp loo xam ne soxla nga ko rek ci mbirum xeetu liggéey rek mi ngi ci biir mi ngi ci biir fédération Ahlou Café ONG Ahlou Café bépp liggéey boo bëgg a liggéeyul rek am na ci biir ñun bu ñu tabax kër duñ ko wuti fenn ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp euh, doguma la sax ci ci ci fànn googu yaakaar naa ci biir euh, corona bi bi mu xawee sonal réew mi jot nañ faa ñëw benn reportage boo xam ne ñu ngi fa fekk waa Ahlou Café ñuy def euh, ñuy defar ay masque ay masque yoo xam ne masque qualité la yoo xam ne waa Eau Café ñoo ko doon defaral seen bopp yoo xam ne sax demoon na ba ci ay commande yoo xam ne ñu ko doon liggéey amoon nañ ci ay commande yu bari mhm. ñoom ñun tailleur yi ñoo ko moom ñoo leen formé ñoo moom machine yi masque yi ñoo ko doon defar mhm. nga xam ne wute wut ak masque yi nga xam ne day jóge ci ay bitim réew yëpp wutewuñ dara mën naa am sax yi moo gën a baax mhm. yooyu ndax ci anam gu mucc ayib lañ koy defar gu sell te woon dem ngeen ba ca fa tëyëree nekkoon mhm. eh, ca atelier ba ba xool ko mhm. ak yeneen ak yeneen yu ñuy def ci biir mhm. dañuy def ay céréales locales ay transformation de fruits dañuy ñaw yeneen yére jigéen yu bokkut ak ay masque ah blouse yi xale di jàng ñoo koy ñawal suñu bopp ak liggéey yu bare bare bare daal yoo xam ne am na ci biir am nañ ay ministre am nañ ay masson ay plombier lépp lañ am te lépp ñu ñoo leen jàngal yar leen former leen bu ko defee ndax euh, ahlu café ni mm, nga euh, liggéey yi nga xam ne mi ngi koy def ci café yeeg ndogu yeeg léeg-léeg yi ak kër Sëriñ Tuubaa bu événement amee ndax ahlu kafe mën naa mën naa tënk benn bilan annuel boo xamee ne danaan année bi kat lii def nañ ci nàngam ci ci ci ci ci ci ci xaalis di waajalaat anne année année prochaine. dinañ ko léeg-léeg ñu tënk ko waaye nag. Mm-hmm. tënk gi day jafe ndax ahlu café ñoom xam nga amuñu noppal. Mm-hmm. ñun duñ noppal de. ñoo ngi bu koor gi jeexee ñu ngi sonk sarsaara bu sars bu ñu jógee sarsaara ngi sonk gamo mm-hmm. bu ñu jógee gamo xam nga bamba day bi amérique dinañ fa dem boole ko ay france ak italie espagne am surne xasida dinañ fa dem jël suñu alal yóbbu fa 40 kilos café la ñuy peese bagage yóbbu ko bitim réew mm-hmm. def ko addi sëñ Tuubaa bu ñu leen taxawal daay formé leen bàyyi leen foofa ndax xam jafe ndax màggalu Tuubaa rek fii ci kër sëñ Abdu ne mm-hmm. café gi nga xam ne ñoo ko fiy tàngal rek café rek ak liñ fi xéewal liñ fi def ren bi nga xam ne màggal gi passé na yaakaar naa bi ñu defee bi la mën na 5 millions ci ñetti fan yi màggal gi. ci ñetti fan yi màggal gi waaw ci café café dañ naan café dafa yomb te loolu boo ko seet li ci ëpp café ak suukar la jar kon bilan bi pour ñu xayma ko dina jafe ndax nañuy def rek lu ñu liggéey fàtte ko ñun moom dañoo ne ci waar wi rek lu ñu woon ginnaaw rek fàtte nañ waaye nag amuñu at mi yëpp amuñu ci bis bu ñuy noppal jërëjëf euh, soxna Mame Issa euh, leeral bi am na solo lool te it euh, taxawaay bi macha allah ndax liggéey bi ngeen di def ci dëkk bi Euh, bu doon lu ngeen di wax rek te nit ñi teguñ seen bët ñu ne euh, dañuy day day euh, lu ñuy wax la rek waaye waaye waaye dese naa dese naa dese naa demee noonu waaye lu ñuy teg suñu bët la saa su ne ndax bëri na ci loo xamante ni su ngeen koy def ñun ñu fa ñëw daañu fa def ay reportage wan ko mbokk mbokk taalibe ñu mën koo xam bu baax a baax donc ñun li nga wax nii dañ koy gën a seereel bu baax a baax waaye taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci réew mi taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci wetu Cheikh Mamadou taxa di ko jàppale ci liggéey bi di ko ci taxaw bu baax baax ndax Cheikh Mamadou Mountakha ci ci ci ci yërëm mbindeef yi Cheikh Mamadou Mountakha ci ni nga xam ne noonu la bëggee wala yërëmee taalibe yi tey su ko mënoon mooy ndoog taalibe yi di leen xeelal kafe di leen jox ñuy naan te loolu yéen a ngi koy def di ko ko defal liggéey boobu gis nañ ne am na beneen liggéey boo xam ne euh, soobu ngeen ci wala ñu ngi koy waajal muy Sarsara ndax kenn Sarsara te tuddul ahlu café mu nekk liggéey bu am solo Sarsara gañ nekk ci Mauritanie euh, ñu koy fàttali euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñooñu seetaan mu nekk bërëb bi nga xam ne Cheikhul Khadim nekkoon na fa ci jamono yi nga xam ne ci lay nekk ci Mauritanie werd wi nga xam ne mooy werdul maxuus fa la ko ko yonent bi salallaahu alayhi wa sallam joxe ñu fay amal nag màggal gu jot ngeen ci am taxawaay bu am solo ngeen toll ci wàccaayu yaakaar naa li ci des bëreetul lan ci mën a wax. ñëpp fa war a dem mm-hmm. ndax Sëriñ Tuubaa nee na innal lazina illa sarsaara xat xasado ziarati faraxu daaray ne aw saara mm-hmm. képp ku ma fa fekk de di siyaara si tàggoo nga ak bàkkaaru àdduna ak àllaaxira te mm-hmm. de fa la Sëriñ Tuubaa di fa liggéeyal yàlla di fa wéetal yàlla di fa dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boobu amul ndox amul yoon amul benn moyen waaye moom jàppe woon na ko bérébu bérébub jaame yàlla ak bérébu dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñ mag ñu baax ñi dañ daan dox di ko fa fekk am na ci ñoo xam ne ci yoon wi lañ faatu am na ci ñoo xam ne ku ci mel ni sëñ Màkka Sarr dafa egg jox ko loxo rek faatu boobu naan magi taalibe yóbbu leen ko ci armeel yi kuufa yi ngeen jébbal ko suñu borom te ku ci ànd sa yaram araamal na sawara moom bàmmeel ma nga fa saa boo fa demee fekk ko fa mhm. kon ñëpp a war a dem sar-sar te léegi dafa sëñ dem booba dara amutoon ay gileem lañ ko doon yéegal ak di ko di ko doxloo mhm. ak di ko dugal ci ay looco di jax ci géej gi te léegi si dañuy dugg ay oto ñii di dugg ay avion dem bi yomb lool kon ñoo ngi ci tàllal loxo ñëpp ñu ñëw ànd dem siyaare ji Sarsara mhm. ndax tàggoog bàkkaar kat jar na paas 3 millions dem ñu ngi ci woon ñëpp le 9 nag la ñu war a départ képp koo xam bëgg ngaa le 9 na nga jokkoo ak Cheikh Abdoul Ahad Dieye boo amee passeport wala sa carte d'identité nga jox ko ko ak xéewal gi nga xam moom la ñuy passé ñu ngi déparé fii ci kër sëñ Touba gi Daaru waa Touba waa Dakar ñu ngi déparé euh, kër sëñ gi nekk Colobane ànd ko soxna Fama Lo ak soxna Ndeye Mbacke ñaari déparé bu ñu déparé nañuy tase Louga ñu ndekkee foofu door a départ dem jéggi nag door a la ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne la bëgg ngaa dem dinañ leen jox numéro yi ngeen woote ci ñu wax leen fi ngeen di jaar buñ mën a ànd ak yéen dem siyaare ji foofee ca suuf sell soosee nga xam ne Serigne Touba mi ngi ko tudde woon ardu saalihina suufu gaa yu baax yi. macha allah macha allah jërëjëf soxna maam Issa euh, bu ko defee taxawaay gi ngeen di def ci Sarsara lan mooy jubluwaay bi tax soxna maam Issa di ànd ak waa daayira yi nga xam ne ñoo bootu ci ginnaawam yëpp di def liggéey am solo waaye di def di def ay délégation ay convoi Euh, di dem ba Mauritanie di fa di fa def bis boobu noonu lan mooy jubluwaay bi bi nga xam ne moo tax son maam Issa di def loolu ak waa ahlu café waaw li ma ko jox nag mooy man dama doon liggéey Sëriñ Tuubaa rek ba egg ndax man dama taxawal sama daayira fédération bi mu yaatu ci dëkk bee quartier yëpp sëñ Alaaji Mbaara nag sama soppe boobu kooku nga xam ne lu nekk ci ma daan genn wàll moo ko ci def ma dem tàgg ko ni ko bëgg a dem Mauritanie gën a yaatal sama fédération bi mu ah, jàmbaar nga waaye dinaa bindal leetar bind ab leetar jox ma ko signé ko ni ma fool fu la neex ci àdduna bi demal maa la si jox ndigal mm-hmm. bi ma demee fekk sëriñ Sidi mu sëriñ Mourtala ma ne ko man damay yaatal sama fédération Maam Jaara bëgg ñëpp bokk ci mu ne ma waa daayira Maam Jaara bi de dañuy ajuma lañ fi tase boo yàkkamtewul da ngay xaar ba ajuma ñu woo leen ma ne ko man damaa bëgg a dem mu ne ma de Nouadhibou de sori na lool ma ne ko man dama faa bëggoon a dem te ñëw ndax fédération bi dama bëgg mu egg fépp te booba nag am na ci lu doy waar la ci nekk toujours dama koy net booba sama oto bi mi ngi sofe mhm. oto bi booba mi ngi sofe sëfoor bi oto bi mënut a dem nowaa dem maa ne ko génnal ci oto bi ñun dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa rek ab taalibe nga oto bi di taalibe may taalibe nda bàyyi ñu dem sëfoor ne sëñ bi kon nga jënd ko cinq bidon cinq litres huile ñu def ko ci oto bi sëfoor bi Modou Sarr mi ngi fii dama dégg mhm. ñu jënd ma bidon cinq litres huile ñu def ko ci oto bi fajar teel la ñuy teg ci yoon Nouadhibou mhm. bi ñu demee ba daw cent kilomètres oto bi commencé di saxar léegi chauffeur bi daal di droite wàcc ndox mi di tëb mu ne ma soxna si de man waxoon naa leen ne oto bi mënut a dem noo di te juróomi téeméeri kilomètre ñu daw cent kilomètres mu des ñett ñeenti téeméeri kilomètre oto bi di sofee ma ne ko ma di toog ubbi sama noor daal di jàng ni ko génnal ci oto bi daal di nag jaaxle na ko fi na xaw na maa jaaxle ma ñëw tiim moteur oto bi ne sëñ Fallou Mbacke de yow yàlla lépp lu am ab resor boo waxee ak moom mu dégg la kon waxal ak suñu oto bi su fekkee liggéey bi suñ tubaab nangu na ko ñu dem bu ko nangu wut ñu wàññeeku mhm. ñi ma àndal ñëpp nag mere nañ ma ndax bëgg wàññeeku ndax booba jaaxle nañ man nag booba laa a am pas-pas pour dem ma dem toog ci kaw montagne ma di jàng sama nooru daal de muy seral oto bi di seral ba mu mu ne ma soxla si nañ dem man ko set na mu ne waa ñu dem moom nag moo nettali ne oto bi moom bi ko taale dafa mel ne moteur bu bees lañ ci moom Moussa ngi fii dama dégg lu mu accéléré mu gën a mu gën a moteur bi gën a nankool nga xam ne moom équipe ba fa mu tëdd moom jógaatu fa waaye nag bi ñu demaat dawaatee ñu gisaat ñu duggaat beneen zone bu tàng nga xam ne cinquante degré ak benn naar arrêté ñu daal di ne kaay ma dafa tàng mu ngeen moytuwut seen oto bi dina sofe safar bi nag kon oto bi tàkkalee dem ndax mi ngi sote mu ne ko ci kanam tuuti cinquante degré moom fa dem mu daal ni may ndox ma ne ko départ rek te bu génn ci oto bi bi ñu demee ba zone boobu nag pneu oto bi moo toj ni teel def ay sagar mu ne léegi de man su ma monté sama sama secours bi dañuy lafañ kon léegi dootuñu amati secours ma ne ko waaye li nga war a xool nga xool moteur bi ba pare ba xam tàng na am de mu ne moteur bi kay soxla si defatu dara ma ne ko nag li téye moteur bi fii mën naa téye pneu yi egg fañ jëm ñu daal di taal dafa la monté pneu bi foofa nag euh, tàngoor wu tara fa ne bi ma ne leen nañ leen jàpp fi julli fi ñaar raaka sax buñu lépp lu ñu jàpp rek suuf si da koy maasalewaat ndax ngelaw lu bari ak désert bi fexe nañ nag ba jàpp fa ba julli ca naajoo ñaari rakk daal di départ nee na nag moom oto bi ma heure bi ko accéléré rek mu mel ne moteur bu bees ci nekk biñ demee ba jub noa du nag sedd bi daal di ñëw xam foofu ko dafa jege Espagne mm-hmm. mu daal di sedd guy nag ñu départ fekk nañ leen ca buntu dëkk ba ñoom ñu escorté di ñu xaar ndax bu sëñ Sidi Mbacke mu sëñ Moutala woowoon na leen mm-hmm. ñu dem ba kër sëñ Touba ñoom dañoo def kër sëñ def kër maam jaara ñu taqaloo biñ demee ñun ñu jigéen la ñun nañ ko dalal kër maam jaara ñu dalal ma foofu daal di may ganale woo daa waa dëkk ba ñu daal di taxawal daayira maam jaara bi ñu am fa ñaari fan jox ma ay addiya ma daal di taalaat sama oto di ñibbisi ndekete chauffeur bi dafa fàtte dañoo fàtte sol gasoil bu doy biñu demaatee ba dawaat cent kilomètres li ma wax ni dëkk la de fu ne nettali naa ko fa mhm. lampe bi tàkk mhm. di dese cent kilomètres diggante Nouadhibou ak Mauritanie lampe lampe gasoil bi tàkk mënu ma soxna si ñun dañoo def erreur dañoo waroon soto soir pene man ne ko xanaa da nga ko fàtte mu ne ma waa man mun lu ci pexe man ko demal rek ba ñuy dem la gënoon a garaaw te te dem nañ ba wàññeeku bàyyi la oto beeg sëñ Fallou rek lampe gasoil boobu noonu lañ dawee di daw di daw ba dugg biir Nouakchott sot station bañ njëkk bañ fa gaaree fa la gasoil bi fa la fay loolu mooy kiimaan yi dal foofu mm-hmm. biñ ñëwee ba egsi bi nga xamante ni ñëw nañ ba egsi ci leen ñëw ñëwaatee ci sëñ Sidi nag mu woowaa ma maam Diarra boobu ñu taxawal daayira bi mhm. gis nga oto boobu jële waat nañ ko Mauritanie ba ñëwaat Sénégal gi te igg ba mu tëddoon jógu fa macha Allah ba ni mu yàqoo ba ba ñu koy sensé di amaat beneen oto moteur bi tàngaatut te sensé wuñ ci dara amul benn pièce boo xam sensé nañ ko ca mhm. te chauffeur bi ko yoroon mi ngi fii di ma ci la ma sëñ Sidi waxee nag ni ma ga màggalu Sarsara dañ ko tàmbali di ko def te waa Sénégal xamaguñ ko te comme yow da ngay wër di yaatal sa fédération dañ laa bëggoon nga nekkal ñu fa représenté ñu senegal mm-hmm. ndax daay amagalo sarsaar gi nit ñi xam ko mm-hmm. bi ma ñëwee na wax ko Alaaji Baara ma ne ko ñoom sax dañoo bëgg ñëw siyaare sa keroog maa leen teeru dalal leen fii ci kër sëñ Touba gi yóbbu leen ci sëñ Alaaji Baara keroog la bindal sëñ Sidi leetar ni ko samp naa la Mourtani mu sëñ Mourtala mm-hmm. ndax fédération bu doomi sëñ Touba jiite waaw Mourtani rek ko am ndax sëñ Sidi fii ma toog war na fee mën a toog keroog la ko Alaaji Baara samp fee mu nekk sëñ Alaaji ku fi nekkal sëñ Tuubaa boo ñëwee yeesal ko ci laa ñëw nag tàmbali di tasaare màggalu sarsaara gi ay benn benn di ko xam koo wax mën ne la fiy sarsaara ak luy sarsaara nga di leen ko leeral ba ñu fa tamit benn bis dañ am keroog bi may dem Alaaji Baara ba ma jox gaasuwaal benn bis boobu boobu kenn ku ne ñeent junni nga joxe bañ demee ba egg mbir mu doy waar tamit xew na ca ndax taalibe bi ñu demee fa xaas ma nga xam ma nga noa ma mm-hmm. nekk ci dëkk bu ñuy wax Maata Mulaana mm-hmm. dañoo dem ni ko dañoo bëgg ren dañoo bëgg yaatal màggal ndax Sénégal dañuy ñëw mu ne leen bu ngeen fi jëndee muusum ndox sax baalu ma leen ko waaye nag bu fekkee li ngeen di woote gi seen sëriñ bi la ñaanal leen mu taw ndax suñ gileem yi ma kii nañ xiif nañ ndax tànd amut àll bi amatuñ luñ lekk mhm. suñ tàndarma tamit mar nañ mhm. ñu taalibe ya demoon dogul ko ne ko waat nañ ci suñ tubaan dina taw bala ñoo ñëw mhm. bañ demee ba nuwaak sot départ wuti Mauritanie wuti Sarsara bañ demee ba fi ñuy jàdde ci désert bi fa la taw ba sóobu keroog fa lañ fanaan di tawte ba bët set ba ba ba fajar léegi 4-4 yi ñëw di ron nit ñi di am na ci ñu bari ñoo xam ne egguñu sarsara ndax dañ fa daa dem wàccee kaamil rek bis bu njëkk ba daal di wàññeeku mm-hmm. Mm-hmm. bañ demee siyaan nga xam ne teel sëñ Tuubaa mu a ngi ne amutoon ndox keroog mm-hmm. mbir xew na fa sëñ Tuubaa defal nañ foofu ba dem na sax ba heure buñ demee sarsara day taw léegi waxtu wuñ fa demee rek day taw ba ñoom ñu am ci ngëmte goo xam ne ñoom naar ba danaan sëñ Touba moom demut fenn moom Assou Missiré neen sëñ Touba demut fenn man guddi aju ma ko jot naa ko fekk si sarsaaru siyaare ko loolu nag mbirum baatin la ndax foofa béréb boobu fa la woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko mm-hmm. wérdu mahmoud mina laah mm-hmm. wasilati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofa fa la ko gisee woon caxaran mm-hmm. foofu bisa béréb boobu moom lañ fay siyaare nee na nag moom foofa lay fekk sëñ Touba guddi aju ma ko jot waaw jërëjëf euh, soxna Mame Issa yaakaar naa leeral lii nag moom ma jotale mhm. fa dem ba yegg ñu ko ci sama loxo ma ñëw sëñ Alaaji Bara joxaat ma ci ndigal mhm. daal di jël sëñ Fallum sëñ Murtala ko yebal ko fa ni ma toppal ci ginnaawam mhm. waaw toppal ci ginnaawam fu mu taxaw nga taxaw fa sëñ Fallu doon ko baax ko am yërmande ci jigéen saa bu ñu fa demee rek cant nga may cant ma nga fay taxaw saa su ne mi ngi may sonne sëñ Fallum sëñ Murtala yàlla na ko fi yàgg te wér na ko ñëpp ñaan ku baax nga ko macha allah jërëjëf soxna Mame Issa leeral am na solo lool muy euh, màggal gi nga xam ne moom la ñuy waajal wala ziar bi ñu amal ca Sarsara nga xam ne ni mu ko waxee du le huit la. le neuf la la ñuy départ fii ci Sénégal. Mm. kon ku képp ku ci bëgg dem rek mën naa ko ci numéro yi muy Serigne Abdou Lahad Dieye ci 76. 585 79 67. 76 585 79 67. wala ca Dakar soxna Fama Lo 77 655 47. 09. 77 141 beneen numéro bi. 77. waaw 141. 90 mhm. voilà kon euh, képp ku ci bëgg a dem rek mën naa jokk ci numéro yooyu mu ñëw ànd ak ñoom nga xam ne fi lañuy ñuy déparé ci Touba ak ca Dakar dem Sarsara ziyaare ci bërëb boobu nga xam ne Cheikhul Khadim nee na képp ku fi jugee dem fa ngir ziyaare tàggoo nga ak bàkkaar yi àddina ak alaxira mhm. te loolu yaakaar naa jar na lu ne. Mhm. loolu rek lañ fi moo fi bàyyi. tàggoog bàkkaar yi àddina ak kon yaakaar naa war naa jaral. ku ne waxuma la ab muri rek rek mais kuy dib julli rek war na laa jaral nga ñëw paas ak coono ya nga cay jànkonteel mm. nga dem Sarsara ndax yaakaar naa cay jamono gënoon naa métti lool mm-hmm. sëriñ bi dem fa tey jii yaakaar naa ay jumtukaay yu mucc yooyu yëpp dañuy dugg ci mm-hmm. oto yu baax mm-hmm. yu ñuy climatiser nga jógee fi dem ba sarsaara boo demee xéewal nga dara du manqué dara du manqué dañuy lekk ba bàyyi ko fa waaw dañ ko fay sottel giléem yi sax ñu wàññeeku ñëw naa dee di ko tonne di ko yóbbu allah macha allah loolu kon ñu koy fàttali mbokk yi baax mhm. soxna si xam naa kon yan kàddu ngay tëjee waxtaan wi xanaa di sant bu baax di leen sant mhm. yéen yéen yéen réseaux sociaux yi mhm. yéen ñëpp waroon na maa tudd kenn ku ne sa tur ndax amoon amel naa leen ak cant mënu ma leen ndax xam nga benn minute communication kenn mënu koo fay te gis naa ne fu ma nekk rek ci liggéey Sëñ Tuubaa ngeen fekk ma fa tàllal ma seen micro muy ñëpp nag ba liggéey bi tasaaroo ci àdduna bi yëpp am na ku ne ma léegi yow daal YouTube bi foo tur na gis la <laughs> internet bi fu ñu tur na gis la mën ne moo ne de man du ma ci fay dara ñi koy def dañ ko def addi sëñ Tuubaa rek li ñuy wax naan booy liggéeyal sëñ Tuubaa boo jàngee alxuraan loo gis xam ko booy liggéeyal sëñ Tuubaa loo bëgg am ko man lépp damay fekk si te ngeen am yërmande ci man loolu dañ koo dem ba ubbi groupe communication pour waajal màggalu Sarsara mhm. kon maa ngi leen sant ñëpp ñu ci bokk mhm. ak ñu ci bëgg a bokk ak ñu ci bokkut ñëpp maa ngi leen sant mhm. di leen ñaanal seen télé yi yàlla na egg télé yi mag yi egg ci àdduna bi te waaj nag di wax ne nañ góorgóorlu baax rek ci jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa mhm. loolu rek moo fi nekk mhm. te euh, lu waaye bañ dee fekk la ci nanga ko yi ndax xalaxal mawta wal ayat yàlla mhm. defoo bind dee ba nab door a bind dund kon war nañoo waajal suñu bopp bu baax a baax rawatina nag suñu mbokk jigéen ñi saa su ne li may mujjee rek mooy ñu góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla liggéey sëñ Tuubaa te moytandiku lu mel ni sànni jamra yi ak natt yi ak ndeyale yi dafa riba la te riba dafa araam mhm. te Serigne Saliou Mbacke nee na roy maam jaara du tax a mel ni moom waaye dina tax a gën say morom Serigne Touba nag nee na soxna jaara mat na ndey kone mhm. kon damaa bëggoon ñun ñëpp rek ñu jël seen bopp ndayee la ko soxna jaara rek far noppali macha allah jërëjëf jërëjëf soxna maam Issa yooyu ñoo ngi lay jaajëfal presse bi ni nga ci wax ci ci ñoom ñoom lu mel noonu la ñuy wax ci yow ndax ñoom saa suñu dikkee rek nga yaatal leen ubbil leen say buntu ba tax ñu ñemee ba luñ bëgg it nga euh, jàppandal leen ko ñu lay jaajëfal baax waaye di la jaajëfal it ci soxna soo xamee ne nangu naa sonn ci yoonu Serigne Touba wi néewaa na soxna su mel ni yow coono yi muy toggoo ak yitte ji muy def bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi sa lépp jëla sa sa mën naa ne sa dund yëpp nga jaay ko ngir liggéeyal Serigne Touba loolu lu lu lu yombut nekkul lu yomb waaye nag tawféexi Serigne Touba la goo xam ne ku mu ko ku mu ko namm ci la koy tàggatal la koy tàggatal bopp liggéeyal Serigne Touba lim lay may mm-hmm. lim lay may lim lim lay may ak fi ndax liggéeyal Serigne Touba da lay raxas ba nga set mu yéegal la ba ca kaw ñu naan kii fi nekkoon barki dem tumuranke moo egg fii mu jaaxal ñëpp mhm. lu la ko lu dul liggéey sëñ lim lay may tey soo amoon un milliard mënoo koo jënd ay milliards ndax man li ma am ne moo dàq ay milliards te ma ko lu liggéey sëñ Tuubaa moo tax maa ngi sama loxo di ci woo ñëpp góor ak jigéen maa ngi dox te loolu doo nga fi ne waaw sëñ Tuubaa soo man mu defale loo mën soo ko defale loo mënut mu defale loo jomb ko léegi waa soora bi bi axlu kafe lañ ko ndeysaan li ma ko may nag dafa sëñ Tuubaa loo mënut mu fay la lu la jom ndeysaan jërëjëf yal na yàlla yàlla gën laa dëgëral bu ngeen gën a a dem ci liggéey bi ak seen sago mm-hmm. ànd kooku wër ba nga egg fa xanaa dañ bàyyi nga daal di rek bu ko defee sëñ Fallou mm-hmm. jombut nga waaw jërëjëf jërëjëf xam naa soxna si mm-hmm. toog tuuti rek ci ñu wéyale li nga xam ne moom moo di ah, programme bi fii ci résidence Khadim Rasoul ni ñu ko ànd ak ci séntu weer wi ak plateau spécial yi nga xam ne ñu ngi koy déroulé sànq Soxna Maam Issa moom ngeen doon dégg euh, ci euh, plateau bi waaye neskis incha allah yeneen i boroomi xam-xam incha allah daañu ñëw lépp en direct lay doon ñu ànd ak yéen ci plateau yu am solo yi waaye noonu lañ ko wéyalee incha allah suba ci bisuk euh, julli gi ci li nga xam ne moom moo jëm ci julli yi ñu amal en direct fii ci grande mosquée bu Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom sëñ Bassirou ni nga xam ne noonu lay bàyyeekoo ca Daarul Minaan ñu topp ko ak ay caméra ay caméra en Euh, ba keroog muy agsi fii ci jumaa ji lépp convoi bi dañ leen koy jëlee incha allah julli yi nga xam ne day am ca daarul moxti dañ koy jël en duplex lay doon julli yi nga xam ne mooy am ca masalikul jinaan ak fépp ci réew mi muy njaareem ba ci bitim réew muy France ak Italie yeneen réew yu bëri ci diaspora bi jokkoo nañ ak ñoom incha allah julli yi fay am daañ jokkoo ak ñoom lépp ñu baaxee ko ñi nga xam ne ñooy mbokk taalibe yi ngir ñu xam ne yoonu murid moom manqué wul dara euh, jël nañ moyen technique yëpp jël nañ matuwaay yëpp ngir incha allah fas yéene fee def ay plateau yu am solo incha allah ci guddi korite gi fii plateau bu mucc ayib lay doon ak Serigne Gana Messere lépp en direct lay doon incha allah ak yeneen borom xam-xam kon neskis incha ñu dalal la fii ci plateau bi ki nga xam ne moo di Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdou Fatah moom Serigne fàllu mi nga xam ne moo jiite commission sociale bu Touba ca ñu fas yéene waxtaanee ci liggéey bu solo bi nga xam ne moom la commission sociale bu Touba ca kanam amal ci biir weeru koor gi waaye it ci at mi balay loolu ñu dem régi rek ñu teewlu benn reportage bu am solo boo xam ne defaloon nañu leen ko ci biir weeru koor gi ci ni nga xam ne dañ tuddee les hommes de l'ombre ñi nga xam ne duñ feeñ les caméramans les techniciens les régisseurs ñi cadré ñi ñi réaliser nga xam ne diir weeru koor gi kenn ku ci nekk fii ngay yendu fi ngay fanaan lépp rek ngir bëgg mbokk taalibe yi fu ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu mën a seetaan en direct li am fii ci Touba kon ñu baaxee leen reportage boobu incha allah nees kiis ñu ñëwaat ak sëriñ Euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Fatah euh, Serigne ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Mourtala moom Serigne Abdou Fatah mi nga xam ne moom moo jiite commission sociale bu Touba ci kanam ci neskis incha allah. nit ñi dundalee weeru koor gi fii ci résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Touba xalaat la ak ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides depuis di événement boo xam ne dañ koy diffuser en direct ci chaîne de télévision yu bëri ak presse en ligne bi loolee moom moo tax Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne moom lañ dénk liggéey bi seen direction générale bi jël ay matuwaay yu am solo yaatal liggéey bi jël mboole matuwaay ci wa ngir diffusion bi mën a yaatu. direction générale bi nga xam direction générale bu Hizbut Tarqiyyah jël matuwaay yu am solo ngir euh, jàppandal euh, jàppandal ñu jumtukaay yi nga xam ne ñoo mën a tax ñu mën a ñu mën a ñu mën a couvrir loolu loolu li ci jiitu mooy euh, teg dispositif boo xam ne fii ci kër gi dina permettre ñu mën a couvrir événement bi maanaam dispositif de télévision ay caméra ay régie ay professionnels yoo xam ne dina tax ñu mën ko couvrir ci qualité bu am solo ba pare euh, teg dispositif de transmission yi nga xam ne tamit lu mel ni internet lu mel ni ay faisceau fexe ba euh, signal bi ñu mën koo joxe mën koo tas mboolem fu télévision nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu mën a fexe mu jot ci. salle bi nga xam ne ci la ñuy amalee njàng mi. organe de presse yi ñëw ngir bëgg a couvrir événement bi mënuñu fee nekk ñoom ñëpp moo tax ñu nosee ko noo xam ni dañuy génne benn signal bu neutre mboolem organe de presse yi ak fépp fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew daañu am possibilité mën a diffuser événement bi en direct te duñu déplacé wu. xam ne yebal nañu ko ci ci ci murid rek waaye fu mu euh, jullit nekk rek te te bëgg a dund euh, événement bi. moom jekk nañ ngir ngir jox la signal bi kon day ay yu neutre yoo xam ne dañ koy dañ koy génnee muy RNTP ñi nga xam ne tey faisceau la ñu soxla ñu génne leen signal faisceau ñi nga xam ne ñëpp ñoom ci YouTube lañ mën a jël ngeen mën a mën a jàllale seen liggéey kon yooyu yëpp day liggéey boo xam ne disponible na. fii ci Touba ci résidence Khadim Rasoul am na fi salle boo xam ne dañu ko jagleel presse bi ngir ñuy mën def seeni diffusion mu am internet bu am doole ak lëkkaloo goo xam ne am na ci liggéey bi mu nekk booloo goo xam ne ñëpp ko rafetlu. liggéey bi nga xam ne sëriñ bi digle na ko ci résidence bi te Hizbut Tarqiyyah di ko jiite ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ci ku ci nekk indi sa matériel jël lien yi nga xam ne génn nañ ko mu doon ay lien yu neutre ñu fas ak ñoom ci wasaare. yiw yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko fii ci kër gi ci di ko def ay direct waaye it di def ay reportage di dikk di monter di partage entre ñun ñi nga xam ne ñooy nekk fii entre technicien waaye entre tamit organes yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i yitte ñëw fii fas yéene yaatal liggéey euh, liggéeyub sëriñ bi. liggéey la boo xam ne bañ ko dooree ci at mu njëkk ma euh, muy 2018 ba léegi ñu ko ànd ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér. ndax dafa nekk liggéey boo xamante nii ndax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk fii ci Touba euh, dëgg la naam ñëpp mënuñoo ak si résidence waaye ñi ñëw résidence tamit ñëpp mënuñoo dugg ci salle bi nga xam ne fa la ñu amee njàng mi moom moo tax ñu organiser ko noo xamante ni même presse bi bu ñu leen bàyyi woon ñoom rek ñu dugg ci salle bi day fees moo tax ñu organiser ko noo xamante nii kenn ku ci nekk euh, foo mën di nekk moo xam ci biir réew mi ci bitim réew da mën a am signal boo xamante ni signal neutre lay nga mën a diffuser li nga ne moom mooy am ci biir salle bi te it mbatuwaay yëpp ñu jël ko ba nga xamante ni liggéey bi euh, yoon murid moom ñun ñëpp ay taalibe lañ tey liggéey bi def nañ ko noo xamante ni kenn ku ci nekk dana jàppale sama room ci loo xamante ni moom bëgg na ko te mënu ko am ndax euh, weeru koor nekk na weer woo xam ne événement activité day bëri lool ci dëkk bi di Touba te amul benn organe boo xam ne mën ngaa matale lépp amu fi donc kenn ku ci nekk kii day jàpp fale kii jàpp fale kii bu ko defee ku ci nekk buñ ko boolee rek nga mën a am li nga xam ne moom mooy am ci dëkk yëpp moom moo tax liggéey bi ñu tënkee ko noo xamante ni lépp lii xew ci dëkk bi moo xam conférence yi la moo xam ndog yi la moo xam njàng mi am fii résidence la ak ak ak naafila yi yëpp danañ ko mën a am en temps réel donc mu nekk liggéey boo xam bu ñu rafetloo bu baax a baax a baax di santaat bu baax a baax nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal muy mboolem organe de presse yi surtout presse en ligne bi nga xam ne ñoom it à chaque à chaque fois dañ ciy def liggéey bu am solo. mu ne ñi ngi ci liggéey bi quoi ànd ceeg presse bi yëpp ñëpp ngi fi dëgg yàlla nekk ay jàmbaar baax a baax a baax daal ñu ngi sant yàlla bu baax daal chaque année nag ba ko sëñ bi diglee ba léegi te nag duñ bàyyi mukk fii sëñ baa koy digle rek ñu koy def ndax ñun moom ndigalul sëñ bi rek moo ñu fi bàyyi quoi ndigalul sëñ bi rek li ñuy wooyee. at mu jot bu bi sëñ bi ndigal waa Hizbut Tarqiyyah si liggéey bu am bi nga xam ne dañuy dundal koor gi fii si njàngum xasida bañ ko joxee ndigal boobaa léegi ñu ànd ko ñun mbokk taal bi nga xam ne mooy site internet yi nga xam ne ñoo nekk si Touba yëpp di ko ànd ak mboolem waa Hizbut Tarqiyyah si liggéey bi ak mboolem waa jumaa ndax doo xoolee salle bi ñu nekk doonut euh, njàngum xasida mi rek lañ fi jàllale waaye ñi fi toog ñëpp ñu ngi jàllale mboolem programme diine boo xam ne ñu ngi koy amal fii si koor gi mu ngi mel ne daare kaamil muxadamatu xidma ak yeneen waxtaan yoo xam ne waxtaanu diine la ku ne gis na ni interview wala conférence bu am li fiy dajee ci ay ay caméra wala ay organe moom demee noo xam ne kenn du mën a gérer te léegi nii ñu koy defee nii day day ndimbal wala day tawféex joo xam ne xëy na suñu borom defal nañu ko ndax tey jii euh, di nga teg dispositif boo xam ne tey lu jar télé yëpp du ñëw te boo ko installé ba génnee sa sa signal neutre moo xam muy RMTP wala boo amee signal faisceau wala wala nga joxe sa signal YouTube neutre boo xam ne fu waay toll mën ko am kon loolu day doon ndimbal loo xam ne télévision yëpp mën nañ ci mën nañ koo jëfandikoo yi ci biir réew mi ak bitim réew te qualité lay doon boo xam ne qualité bu bu fu HD lay doon. kon loolu tamit xéewal la goo xam ne suñu borom defal nañu ko di ci sant Sëriñ Tuubaa bu baax baax. ci biir weeru koor gi fii ci Touba activités yi dafay bëri lool ba tax na benn organe ngir nga mën a couvrir activités yooyu yëpp du yomb liggéey boobule li muy bëri bëri benn organe de presse yëgul diisaay bi ndax doole yi ñu boole. fii nag moom ñi fi nekk ñëpp benn lañ ndax kenn ku nekk da ngay jël sa morom def ko ne sa bopp ndax doo xoolee jëmm ji nekk sama wet ni di suñ Muntaxa nekk fii nekk sëriñ bi euh, yaatal nañu fi baax a baax ndax lu si bari bëri si ak jàpp ndalam si la amee. loolu nag ñu ko siy sant baax a baax di ne ñoom lañ fa bokkal nekk ndax liggéey bi moom dafay dafay dafay kenn ku nekk da ngay sa bopp def ko mm-hmm. lépp loo xam ne manqué nga ko sa morom danga la ko loo amuti doo demee sa morom maam day sa sa sa say say fi loolu nag boole giñ boole nekk benn te lépp ñu seedal ko jëmi Sëriñ Tuubaa ji rek loolu moo waral lépp di ñaan suñu borom gën ñoo euh, sàmm dëgëral ñu ànd bi ba nga xam ne lépp loo xam ne pexam seytaan rek suñu borom mosal ñu si da nga ci gis booloo goo xam ne ñi nga xam ne ñi ngi fi booloon nañ ko ndax fii doo boo ñëwee doo xamee ku moom machine bi wala ku moom caméra bi wala ku moom micro bi wala ku moom lii lu waay soxla dangay ñëw jël bu fi libre nga jël yóbbu parfois dina am ngànt sax du ma a ñëw waaye ñi fi toog ñoo koy lancer direct day woote rek ne ah gars yi lancer leen ma gars yi lancer ko direct su paree ñu arrêté ko kon nag loolu moom loo xam ne ñiy yëngu ci presse te nekk ci dëkk bi war nañ cee jàngee ndax ak booloo la goo xam ne ci daal lépp ci weeru koor gi waaye it baatinub liggéeyal sëriñ bi moo ko moo ko indi suñu borom dimbali nañu ci ba mboolem chaîne yi nga xam ne tey jii ñoo aju ci yoonu murit nga xam ne mbirum sëñ Tuubaa moom mooy seen mooy seen mooy seen guddeeg bëccëg lëkkaloo nañu joxande seen loxo euh, ngir mën a couvrir événement bi kon mu nekk liggéey boo xam ne ñëpp ko àndandoo nekkul almouride rek déedéet waaye almouride yaa ngi fi Bichri ngi fi Lamp Fall TV ngi fi mboolem chaîne bi ndax ku lim juum waaye du ma du ma du ma lim waaye ñëpp daal nga xam ne ñëpp a ngi ci. ngir mën a euh, joxante joxante suñu loxo couvrir événement bi fexe ba mu mën a mën a jàll ci mboolem chaîne yi. fii ci grande mosquée bu Touba ñoom it jël nañu ay matuwaay yu am solo ci wàllum yaatal mboolem activité yi fi am jëm ci conférence yi naafile yi ak ndog yi ñoom it ci seen régie bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji dañuy génn benn signal neutre mën koo jox mboolem organes yi nga xam ni dañuy bëgg a diffuser mboolem li xew ci biir jumaa ji. comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def ci weeru Euh, xam ngeen ne communication bi nga xam ne mooy daayira Muxaddamatul Xidma dafa jël ay matukaay yu am am solo ngir euh, waxtaan yi nga xam ne moo fi am moo xam naafile la moo xam waxtaan la moo xam dog yi nga xam ne moo fi am danañ fexe ba mbooleem organes yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak yi nga xam ne nekkul sax ci gox bi fexe ba ñëpp mën koo am ci anam goo xam ne anam bu gën a rafet gën a baax lay doon Euh, gis ngeen euh, ngeen yéen a ngi ci fi nga xam ne mooy euh, saalu technique bi fii la xam ne yi jàll yëpp fi nga xam ne fi lay jaar doo jàll fi nga xam ne moom la sit yi nga xam ne mooy mooy topp ñooy am liens yi nga xam ne ñoo fi ñoo fiy jugee ñu mën ko am ci anam gu gën bépp site wala télévision bu bu bu jokkook barab bi rek na ko yónnee lien bi nga xam ne Euh, mooy transmettre direct yi nga xam ne moo fi moo fiy jar. nit ñi dundalee koor gi fii ci résidence Xaadim Rasul njàngum xasida gu yaatu lay doon loolee laaj sonorisation bu mucc ayib te am doole moom moo tax waa daara Hizbut Tarqiyyah jël nañ ci ay matuwaay yu am solo ngir kuréel bu ciy jàng bu ne son bi génn mën a mucc ayib. li ñu doon jëkk na def mooy ci li war kër sëñ Tuubaa gi fexe woon ba haut yi waroon kër sëñ Tuubaa gi. Euh, ci biir euh, mbaar mi nga xam moom lay jàng tamit feexoon naan boo xam ni defoon nañ ci ay retour yoo xam ni bu nuy jàng euh, njàng bi dina nit ñi dina mën a dégg te du leen sonal yenn son yi di te du leen sonal. te wàllu installation daal wax dëgg yàlla defoon nañ ko noo xam ni fépp fépp bépp nit boo xam ni nekk na ci kër sëñ Tuubaa gi bu dul ci biir kër sëñ Tuubaa gi sax biti biti boo nekk ci biti rek. fexe nan ba xam ne boo nekk ci biti avant ngay dugg ci kër Sëñ Tuubaa gi fexe nan ba boo nekk ci biti di nga dégg njàng mi. waa sonorisation seenub liggéey yem rek ci génne li nga xam ne mooy am ci njàng mi waaye dañ ciy boole ay animation yoo xam ne ci journée bi dañ koy def ci yenn waxtu yi. bu ñu xëyee dañuy jëkk def animation bu animation mi daan commencé midi. bu commencé midi ba une heure dañuy arrêté bu ñu arrêté bu ñu jëlee tis ba pare nu continué waat bu ba quatre vingt nu arrêté diggante boobu nag euh, doo amal animation léegi nag diggante boobu bu ñu julee tàkk saan léegi dañuy daal di xaar nekk waajal kuréel bi war a jàng bu defee day fekk ñu dañ leen natuwaay yëpp pare. kuréel boo xam ne mooy gàttanu sëñ bi foofu tamit amoon nan micro boo xam micro ACF moo fa nekk boo xam bu bu ñoom it bu ñuy jàng jàng mi day génn ci biir salle bi tamit fexe nañ ba xam ni ñi fiy jàng ñëpp fexe nañ ba jël suñu matuwaay ba xam ni kuréel bi. Euh, nombre bu mu toll rek amoon na nañu yéene kenn ku ne dangay am micro xam ñun limub limub limub trente personnes lan njëkk naa jàpp ci nga xam ne moom mooy kuréel bi. am na kuréel yoo xam nag du mën a mat trente personnes ay vingt huit lay doon wala vingt sept matuwaay yëpp jëloon nañ ko ba nga xam ni lépp loo xam ne laaj na ko ci waa kuréel bi def nan defoon nañ ko. léegi éléments yi nga xam ne moom ñooy jege kuréel bi fi ñuy jàngee. loolu seen liggéey lu am solo la ndax euh, kuréel bi suñ suñ toogee daanaka ñoom du mën a orienter seen bopp micro yi léegi éléments sunu yooyu nga xam ñooy nekk jege jege kuréel bi ñoom bu kuréel bi xasee toog rek ñooy orienter micro yi ba nga xam ni léegi nit ki suy jàng dina mën a jàkkaarloo micro bi ndax nit ki su fekkee day jàng te jàkkaarloo ak micro bi wala micro bi sori ko léegi qualité son bi nga bëggoon doo ko mën a am. mooy waral léegi euh, élément sono yi di di di sës ci kuréel bi ba pare kuréel bi du toogee am ñoo xam bu ñu toogee tamit dañuy xaw a fat te son dafa nekk loo xam ni boo farluwul ci wàllu kuréel bi moo na fat ak micro mën na la jege yooyu yëpp bu amul rek. kon li nga bëgg ci qualité bi day des. mbooleem événement yi am ci dëkk bu sell bi di tubaa ñu koy tasaare ci àddina bi yëpp jàmbaar yi ñoom ñoo koy liggéey lépp ñu boole ko mu doon benn booloo gi nag su amee kenn rek lañ koy sante muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides ñu koy ñaanalaat mu gën fee yàgg lool te gën a wér. waa réew ci reportage bu am solo boobu nga xam ne moom lañ doon dégtal. mbokk taalibe yi mu jëm rek ci euh, ñi nga xam ne moom ñu tuddee les hommes de l'ombre ñu doon def euh, reportage yi wala liggéey yu am solo ci biir weeru koor gi fii ci résidence Khadim Rasoul ci grande mosquée bu Touba ca daaray Kaamil euh, muy liggéeyu am solo yoo xamante ni diirub weeru koor gi bépp matuwaay jël nañ ko nga xam ne daanaka ñu ci bëree bëri bëri sax fi la ñuy fanaan euh, ñu ci bëri demuñ seen kër yi donc mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa ne duñ ñu dugg ci lim bi ndax euh, li wolof naan ku lim doo matal waaye mbooleem rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk xam nañ seen bopp santaan nañ leen baax a baax gërëm leen ci liggéey boobu waaye rek euh, am nañ ci plateau bi ki nga xam ne moom moo di Serigne Mourtala moom sëriñ Abdoul Fattah moom Cheikh Amor Fadal ñëw na muy jiite commission sociale bu Touba ci kanam incha allah nes kii daañu am ak seq ak waxtaan ñu ànd ak aussi ci plateau bi soxna maam Diarra Gueye euh, nekk euh, taskatu xibaar ci académie Minane moom it incha allah daan ñëw ci num mu gën a yaatoo ci question yi nga xam ne dañ koy posé Serigne euh, Mourtada moom Serigne Abdou Fatah waaye laataay boobu rek ñu dégtal leen beneen reportage boo xamante ni annonce la mu jëm ci benn documentaire boo xam ne préparé nañ ko ci événement yi nga xam ne day am ci Touba ci weeru koor gi muy keroog bi ñuy séntu weeru koor gi ba gis ko muy njàngum fajar gi nga xam ne am ci jumaa ji muy euh, ndog yi muy waxtaan yi am ci jumaa ji muy ndog yi bay Faal yi muy ni ñu dundalee euh, li nga xam ne moom moo di euh, koor gi fii ci résidence Xaadim Rasoul yëpp mu nekk benn documentaire bu am solo boo xam ne dañ ko tënk ci ay minutes yoo xamante ni ci ñaar fukki minutes yu teg loolee incha allah dana génn tey wala suba xam naa rek dañ leen bàyyi ngeen teelu li nga xam ne moom moo di bande annonce bi. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا من يسخونكم من من يضمن أن جنة فوردا وخمد ما في من بيت بير ما في لقي mu mel ne ci la air bi tàmbali ñu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan man ko ndax sañ na maa ñëw man rek man ma mi ngi lay xaar nii de mi ngi mi ngi mi ngi ko Sëñ Tuubaa di la xaar ma ko nuyoo mu ne ma njël gi daal laa bëgg ngeen jël ko. wa yakfi janaabi sharra maa huwa waaqi'un salaatan wa tasliman min allahi abtaxi liman kaana bi taaxaati abudan yusaariu buñ nekkee ci biir jumaa ji ci biiru bàkkam mu ne bi dafa dafa dafa yëkkati aw bàkkam it dañuy yëg ni noonu moom mi ngi nii noonu tam la ñuy yëgee ni im ko doon wax mi ngi nii noonu la ñuy yëgee itam kii ko ko doon wax loo mi ngi nii xam ne suñu Buxaari ne ko sa baay de nee na ma jaamu yàlla baax na fu ne waaye sakkane na Tuuba kon lii Cheikh Mouhamadou Mountakha def ngir dundal la nga xam ne kilifaam yu tedd ak waajuram yu tedd ya doon nañ ko def. moo tax njaboot Sëñ Tuuba gépp ñëw fi nga ànd koog moom di ko bége te xam ne xaasi boppam lañu ko Sëñ Tuuba xaasal. ñu yéene ko ko te di ko ñaanal yàlla mu gën cee dolli am ndam. mu ne ko defal ma ci lépp loo xam ne soo ko doon def yow am ko ci. mu ne ko defal naa la ko moo tax bi teg moo tax ma am ci bind ak way nga xam ne màggatum lawbe mu yorul lu dul menn mbaam maanaam li ko ci defal ku ko defaloon màggatum lawbe mu yorul lu dul menn mbaam dana ko jox toog ñun su fekkente ne weeru koor dikkati na Cheikh Mamadou Mountakha di ko dundalee nii di fàttali njaaram yu jëkk ji suñu amee tawféex ànd ko moom sant diwle ndogu yi nag ci pàkk bii la fekk ba ko ko borom sante ba mu génnee dafa wax ne borom Touba ay ndogu la ndogu yi ma borom Touba nag sëñ Bamba ku ma ci defal lu toll nii tànk danaa la ci defal loo xam ne doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira ndog yi dañuy wax mbirum Serigne Touba rek day am tànki kanam mais doo am tànki ginnaaw. biñ koy tàmbali année bi ñu ko njëkk a def 2005 boobu budget weer wi yëpp matul woon sax 1 million 900 quelque mille la waaye daaw daaw ñu ngi ci 59 millions et quelque. waa régie ci euh, annonce boobu nga xam ne moom lañu doon loon baaxee mu jëm rek ci euh, li nga xam ne moom moo di euh, vingt quatre heures yooyu nga xam ne moom lañ bëgg a baaxee ci coor gi nga xam ne reportage bu am solo la benn documentaire boo xam ne ñaar fukki simili simili la ak juróom-ñett ci mbooleem activités yi nga xam ne moom mooy am ci koor gi dalee ko ci biñ séentoo weer ba gis ko ci euh, njàngum fajar gi ci jumaa ji ni ñu ko waxee sànq waxtaan yi fi am ni ñuy dund koor gi fii ci résidence ci ndog yu Baye Fall yi ndog yu muxaddamatul xidma yi lépp rek lañ tënk ci benn reportage bu am solo boo xamante nii incha allah moom lañ leen fas yéenee euh, baaxee mbokk yi ñu am mbégte ci euh, wéyal plateau yi fii nii ci nekk 1443 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam nuñ ko àndeek mbooleem chaîne yi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci biir réew mi ak ci euh, bitim réew ñuy am mbégte lool di dalal fii ci euh, plateau bi kilifa gu mag kilifa goo xamante ni liggéey bu am solo lay liggéey euh, ci Touba ca kanam liggéey bu am solo lay liggéey ci biir réew mi liggéey bu am solo lay liggéey ci bitim réew muy Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah moom Cheikh Mamadou Fadal moom Xaadimu Rasuul mu jiite commission sociale bu Touba ca kanam ñuy liggéey liggéey bu am solo ci fànn googu ci biir koor gi rek amal nañ fi journée sociale bu am solo boo xam ne lu ëpp juróom benn fukki million wala lu lu ko teg séddale nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, euh, ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak yeneen réalisation yu bëri yoo xam ne incha allah dana ci ñëw sëriñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci plateau bi di la bàyyi nga nuyoo. di la ndokkeel ci euh, weeru korité bi nga xam ne feeñ na di la ci balwaale àq di la balaax te di ñaan yàlla suñu borom jéggal ñu may ñu fekkee ay diwéen yu bëri aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lazi yusalli ala nabiyi almuntaqa almusalli salla wa sallama alayhi llahu fikrati nawir wa xalbi arsida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu te di la siyaara te di siyaare soxna si hmm. tey siyaare mboolem suñu bokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ nekkal ci barab bi di ñaanal Cheikh Mamadou taxa suñu borom yàggal ko fi loolu te defal ko bu wér ba ni mu yéenee liggéeyal sëriñ bi yëpp ak mboolem yi mu am yëpp mu àggale ci sakom te ñu ànd koog moom di nuyu mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp te di leen siyaara bu baax tey jégalu bu baax ci barab bi ñu nekk di fi yëkkati ay ay kàddu ndax naa ne lu mus lu mus lu mus am la. Mm-hmm. waaye nag euh, liggéey bi ak ni muy doxee moo moo waral. Mm-hmm. kii kon ñu ngi koy ñu ngi koy jégalu ñëpp baax a baax. Mm-hmm. di leen jottali am yoo itam ci kuréel gi nga xam ne ci lañ mbokk muy Touba ca kanam buñ tuddee sëriñ Abibulahi Mbacke mi nga xam ne moo mooy kilifa kuréel gi. ak suñ ku mel ne suñu Abdoul Ahad ak euh, suñu Abdoul Fatah Gueye mën naa yóbbaale mboolem waa kuréel gi yëpp rek soxna yi suñ soxna Bintu Mbàkke ñëpp rek ñu ngi leen di siyaara bu baax alaaji sëriñ tàkku di leen ndokkeel tamit ci weeru tedd yi nga xam ne moom lañ nekkoon te muy weeru tedd woo xam ne nii li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamut fu mu toll ndax lu takkoo takku la di leen ci baalu àq di leen baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal te nangul ñu suñu jëf yu yiw tey jéggal ñu suñu ay rëcc rëcc di siyaarewaat ñëpp jërëjëf Cheikh Amadou Mourtada euh, soxna Maam Jaara ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci euh, weer wi di la balu àq te di la balu àq ñoo àndoon weeru koor gi yëpp te yaakaar naa ñu ngi la doon tooñ ak lépp ñu lay balu àq bu baax a baax baax di la baal te di ñaan yàlla suñu boroom jégal ñu ñu bala rek nga nuyoo ko mbokki euh, téléspectateurs yi ñu ngi lay delloo ziar bu baax sëriñ Fallou. Mm. di am mbégte ak kontante. Mm. di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne rek ñi ngi ñuy bàyyi xel ci jamono ji mm. di la wax ni Serigne Fallou baal nañ la bu baax waaye yow it ñu ngi sàpp ci yow nga baal ñu bu baax a baax. di sant yàlla suñu borom moom mi nga xam ni moom moo ñu kartanal. ba ñu fekkee li nga xam ni moom moo di weeru koor yi di weer woo xam ni euh, weer wu sell la mm-hmm. waaye tamit kàttanal ñu euh, bañ ba nga xam ni rek lépp la nga xam ni amoon nañ yéene def ko ci euh, def nañ ko ci mm-hmm. xanaa kay li des mooy ñu ànd ñun ñëpp rek ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu bépp jaamu yàlla boo xam ne rek amal nañ ko ci weeru koor bi tey ñaan tamit ren bañ a nekk suñu mujjantalu koor mm-hmm. ñu ngi lay ziar di ziar bu baax a baax ki nga xam ne mooy Serigne Mourtada jërëjëf soxna Maam Diarra xam naa rek yow la ñuy bàyyee nga ñëw ci première question bi ak euh, Serigne Mourtada moom euh, Serigne Abdoul Fattah moom Cheikh Omar Fadal ci euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal mu jëm ci social Touba ci kanam. jërëjëf sëñ Fallou Serigne Mourtada ginnaaw bi ñu ko giyaaree ndokkeel ko waaye tamit dalal ko ci ëtt bi nga xam ne ab ëttam la dañuy daldi rek ànd ak moom ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi doon sàkku rek. ay leeral ci li nga xam ni moom mooy Touba ca kanam sociale yi nga xam ni daf koy amal mm-hmm. ndax euh, Touba ca kanam nekkatul benn kuréel boo xam ni dañ koy présenté kenn mm-hmm. ci biir réew mi yëpp mm-hmm. Touba kanam nekk na benn kuréel boo xam ne si képp koo xam ne si rek yaa ngi ci diggante bi nga xam ne si fi la lépp li nga xam ne si murit gi mhm. mën nañ ni sax murit gi waaye tamit mën nañ ni mboolem jullit yi rek mboolem jullit yi yëpp mhm. parce que Touba ca kanam dafa nekk liggéey boo xam ni dafa dafa dajal tey mhm. dafa matale kon soo xamee ni am nañu kenn koo xam ne dafa bàyyikoo ci ñoom yor ci poste boo xam ne dafa nekk poste boo xam ne bokk na ci ëpp doole muy commission sociale bu ñu toogee ak moom laataa ñuy dugg ak moom ci dara euh, dañ koy laaj social yi nga xam ne Touba ca kanam daf koy amal lan moo ko tax a jóg kon Serigne Mourtada bismillah waaw jërëjëf soxna mam Diarra ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci laaj bu am solo boobu nga laaj eh, loolu luñ ko mën a luñ ci mën a soril mukk bu dul leeraluñu jëmmi Touba kanam ci boppam lan moo ko tax a jóg mm-hmm. mooy sëñ Touba mi nga xam ne moo mooy borom dëkk bi nga xam ne moo sanc dëkk bi te ba mu koy sanc itam eh, du doon toon suuf soo xam ne ni ay maamam ñoo ko moom moom wala ay bokkam wala suufu kenn ñëw fi woon itam ngir gis ne bërëb bi dafa neex a jaayee wala dafa neexa a commercé wala dafa ndax boo fi ba boo fi bayee day nangu wala yu demee noonu waaye dafay ñëwoon sanc ko ngir jaamu yàlla ak dund sunu yonent bi sallallahu alayhi te loolu boo demee ci xasidaam googu ñu ni wax Matlabul Fawzayni ak ci xasida gi ni wax raaya ci njëlbeen gi da nga ci xam loolu bu wér wér wax na ne te bi mu koy bi mu koy sanc nga xam ne mi ngi jóge Daaru Salaam ci ni ngeen xamee histoire bi bi mu jógee Daaru Salaam ba sañ ci Touba. bi mu fiy ñëw ñaar rek la fi fekk muy saawas nag ak windeew pël. bi mu ne fee jàng tamit ñaar rek ko fi fekk mooy kuy wut kuy wut yàlla. kuy wut yàlla kuy wut adduna rek ak kuy wut adduna ak alaaxira mu ne kuy wut adduna kuy wut adduna suñu defal na ko te doyul ko dara mën na la caa jox lu doy sëkk kuy wut alaaxira itam mënal na la fa ëllëg loo xam ne mënuloo ko sa bopp. ba tax na ñëpp daw wut si dëkk bi. suñ Tuubaa itam ku nekk xam na ne ni mu baaxoo defee ay mbiram mooy ci ci saayir ñun ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci àdduna ñu ci bëri ci ñun rawatina ci réew yi buñ amee projet buñ bëgg a def faw ñu wut ku ñu financé ci projet booba ngir mu mën a jàppale mm. da gis njiitu réew mi wala njiiti réew yi da ngay dégg ñu ne président de la république dem na ci beneen réew ngir wut ay fonds yu mën a jàppale am réewam. Mm-hmm. sëñ Tuubaa nag bi muy ci dëkk bii nag moom mm-hmm. amul kenn koo xam ne nii sëñ bi na la ngir bëgg nga jàppale ko ci dëkk bi lu dul boromam. dëkk bi ni bëgg mu mel nii népp da koo ñaan boromam. yi di féete ci sama sow di féete di ma féete kanam. Eh, a wax ma féete. Ah, eh, li ma féete sama ndeyjoor li ma sama càmmoñ li ma kanam bi yëpp. Mm-hmm. ay yu bi da koo ci bërëb mbir ma la bu faw sin te bu ci mm-hmm. nekk mën nañoo wax bayit boobu ko ñaari mm-hmm. kon sëñ bi suñ borom mooy ki nga xam ne nii. lépp lu mu bëgg rek suñu borom la koy ñaan. Mhm. te loolu na teeloon na ko wax bi nga xamee ne. Mhm. Serigne Mor Anta Sali wàcc na ab liggéey. Mhm. bañ koy suturaal. ba am ñu poste yu ñu ko digoon ngir mu jege atte attekat boobu ak mu nekk nga xam ne bu ko doon méngale ci jamono ji mooy mu nekk ab de d'état wala yu demee noonu. te mu waxoon wax wax ju siiwam joojee. foqul toxas bi yarab bi wak tafaytu bihi wala a xayral ilmi wa diini. wala su arjo wala axsa li annahu jalla yuxnini wa yunjini bi muy dem na ba mu yàgg sax muy wax naan anna ufawidu ahwaali liman xaj su wax naa di xaj si ma xajal masakini in kuntu saa watarin aw kuntu saa xasanin daxawdu sal xëy ni xablal raay wa siini maanaam nan laay jëlee samay mbir di ko jooyal ñoo xam ne nii ñoom seen i mbir yi bopp sax mënuñu a régler mhm. ma leen di ma leen di dénk samay mbir mhm. su ma jaaxlee wala ma am aajo suñu borom laa koy ñaan kon li li suñu borom li suñ Tuubaa bëgg ci dëkk bi yëpp ñaan na ko boromam. Mm-hmm. te ñi ko fi wuutu woon ñëpp ci loolu lañ wëy. Mm-hmm. am na kuréel yoo xam ne ñoo fi jiitu woon Tuubaa ci kanam itam bay nañ ci seenu laaj. Mm-hmm. kuréel yu yaatoo yaatu yoo xam ne bu ñu doon bu ñu leen doon tudd mën naa am duñu gaaw a matal. ci kaw loolu itam ci la demee ba am mbooloo moo xam ne nii gis nañ ne. dëkk bi kat gis nañ ay manquement ci saayir yoo xam ne ni sëriñ bi ñaan na ko waaye faw mu am mbooloo mu dox jëm ca mhm. ñu gis ne kon war nañuy reeteet loola mhm. ku mel ne sëñ Fallou Ndiaye sëñ Fallou si la am na ko bu baax mhm. bokk na ci ñi nga xam ne ni moo génnee turu baatu Touba ca kanam nga xam ne li ko taxoon a jug ca jamono jooja mooy reeteet lépp lu ñu gis ci dëkk bi te waru fee am wala ñu gis lu fi war a am ñu reeteet ko ba keroog muy sotti yàlla yi def nag ba sëñ Abibulahi Mbacke mii nga xam ne mooy jiite kuréel fi ab xalaat te loolu mooy bokk na ci li mu daan wax mooy téeméeri kaay ma wax la benn kaay mu wan mu kaay mu wan la moo gën. te ngir ñu mën a wan nit ñi dara nag faaw ñu yëkkati suñuy alal ngir mën koo def ci dëkk bi. Mm-hmm. ci la génne xalaat bii nga xam ne mooy ñaar téeméer. Mm-hmm. weer bu nekk bu ko murid di tàmbalee def. Mm-hmm. bu ñu amee ñaari millions yi murit danañ mën a am 2 milliards par weer mën a am 24 milliards par weer mhm. te loolu lépp luy saayir loo xam ne sëriñ ñaanoon na ko mhm. buñ ci saxee mën nañoo bokk ci ñi koy réaliser mhm. kon loolu mooy Touba ci kanam réalisation Touba ci kanam yi ñu ci euh, euh, kanam la yoo xam ne mi ngi jóge ci ñaar téeméer yi nga xam ne bokk taalibe yi ñu ngi koy joxe mhm. waaye loolu ñaar téeméer yooyu ñu dajale nag day mel ne li ñu koy defee mooy jëmmi dëkk bi mhm. ab dëkk ngir mu mën a nekk ab dëkk mhm. faaw mu am bare bu fajukaay faaw mu am ay yoon faaw mu am éclairage public faaw mu am faaw mu am faaw mu am yooyu nag moom la ñuy defee mille francs yi waaye ab dëkk itam faaw day am ñu dëkkee dëkk ba ndax boo defaree dëkk ba te ñe dëkkee dëkk ba am ay soxla tamit du sotti loolu moo taxoon ñu ne nañ wut beneen commission ci biir liggéey bi te la ca dëgg-dëgg sax moo sos Touba Ca Kanam mhm. ndax Touba Ca Kanam yaakaar naa ngir ab joxe moom di ko sos mooy mën mi nga xam ne moo amoon daamaatu mhm. foofu la commission sociale bi sosoo mhm. ay liggéeyam moo ngi jëm ci mbindeef yi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi te li ci ëpp ci ñoom seen loxo jotu seen ginnaaw biñ koy tàmbalee sos itam li ko taxoon a jug ci njëlbeen ga mooy ci biir jumaa ji am na daare kaamil ju fi nekk a wala fu mu mas a nekk bu fa naree am ab diir dana fa def daaree kaamil mhm. loolu tamit day tekki ne sëriñ bi moom li ko suñu borom may mhm. ndax man ci ci sëriñ bi laa mos a déggee mhm. kuy wut këruk alxuraan ba léegi nag déggaatu ko ma ko feneen su ma ko déggaatoon feneen tamit xëy na dinaa wax ne ak diw waaye sëñ Tuubaa daal laa baaxoo déggee foo dem ñu ne fee mooy daaree kaamil ja daaree kaamil mooy kërug alquran ga mhm. bis bu set ñu jàng fa juróomi kaamil wala mhm. ñeenti kaamil bu alxames ñu jàng fa juróom-ñaari kaamil mhm. loolu di ko tuddee sociale jumaa ja suñu borom dem muy barkeel ba mu man cee boole ñi wér ak ñi wéradeeg ñi amul luñ dundeeg yu ni mel kon daal ci gàttal soxna su ma dellusiwaatee ci laaj bi commission sociale moom li ko a jug mooy taxawu ñu dëkke dëkk bi kon ñaar téeméer yi mooy jëmmi dëkk bi social bi nag mooy ñu tax ñu dëkk ñu dëkke dëkk bi mhm. mu doon ab jaayante boo xam ni nit ki mooy xool mhm. lam man ndax bu dee lee moom ñaar téeméer la par weer mhm. bu dee lii nag nit ki mooy xool lam la ko yàlla man loo di tàmbalee ci dërëm ba fa ko fa fa ko soob liñ ciy def bu ñëwee li ci njëkk mooy barkeelu yi nga xam ne moom la ñu baaxoo yóbbu jumaa ji nga xam ne moo doonoon cosaanu liggéey bi li ciy desaat nag ci li ñuy faje nit ñi nga xam ne dañoo wéradi ñi nga Mm-hmm. ak ñi nga xam ne amuñu luñ luñ xewloo. Mm-hmm. Uh, kon Serigne daal dafa mel ne taxawaay boobu nekk na taxawaay bu am solo waaye tamit nekk na taxawaay boo xam ne si bu yaatu la muy ay ndimbal yoo xam ni dangeen koy amal ci ay xeet yu baree baree bari te yëpp nag ba tey nekk ci biir ndimbal ñu bëggoon a xam naka ngeen di organiser xeetu sociale yooyu nga xam ne da ngeen koy amal organisation bi naka lay demee. xam nga bu dee ci jamono yi bu dee social moom jamono ji nekk ñu ngi. jamono ju nekk ñu ci niñ koy defee mooy mhm. bu dee li jëm ci daari kaamil jumaa ji mhm. wala ci li jëm ci jumaa ji mhm. euh, niñ koy defee mooy chaque la quinze am na lu ñu baaxoo barkeeloo mu jëm ci jumaa ji loolu moom du du du weer bu nekk rek dañ koy def duñ ko jëlal léegi nag euh, buñ noppee nag cas yi nga xam ne moom la ñuy am ndax nit ki nit ñi nga xam ne dañoo am ay cas mhm. ñi nga xam ne dañoo wéradi wala amuñu fun dëkk wala amuñu fun lu ñu xewloo mhm. ñoom dañuy jël liy firndeel ne li ñuy wax lu wér la mhm. ñu yóbbu ko ci siège ba siège Touba ci kanam bu naag yi am na benn secrétaire bu fa nekk bu ñuy wax Sëñ Mourtada Cheikh am na beneen assistante soxna maam amiloo bu ñëwee ñoom la ñuy wan liy firndeel ne ñoom dañoo am soxla si Mm-hmm. bu ko defee am na ñeneen ñuy càmbaraat mm-hmm. la def def fu ñu xam mm-hmm. buñ demee nag ba gis ne mbooleem li nga waxoon la nag ñu seet nag lay naka la lay taxawoo euh, am na ñoo xam ne dañ leen bi baree dañuy seet liñ ci man ki ci des yow tamit nga jàppal ci sa bopp bu ko defee ñu jéem la saafara jamono ju nekk tamit am na ab lim boo xam ne dañ koy jël ci ay ordonnance lu tolloog 1 million laan doon léegi nag jamono ji wàññi nañ ko ba 500000 ndax dafa am ay soxna yu ñu doon defal. Mhm. Euh, test cancer col de l'utérus. Mhm. te am ay ordonnances yu ñu war ci ñoom. te mhm. chaque weer lay doon. moo tax dañoo wàññi ordonnances yi nga xam ne nii dañ ko doon jox nit ñi. di ko jëmale fële. chaque weer dana am 500000 yoo xam ne dañ koy teg ci 16 bi. ngir képp koo xam ne nii am na. ordonnance bu mënta jëndal boppam te ñu mhm. gëstu ko ba mu wér ne da cee lott mhm. waaye du bëgg lu yomb rek moo ko fi indi mhm. su boobaa ñu mën ko koo saafaraal bu ko defee nag ci lim yooyu tamit la ñuy jëlaat ñi nga xam ne mën nañ leen ci jàppale ci wàllum dund ñu jàppale leen ci ñi nga xam ne war nañ leen jàppale ci wàllu dëkkuwaay ñu jàppale leen ci loolu moom jamono ju nekk lay am léegi nag bu fekkee ne am na événement yoo xam ne nag day am ci biir at mi muy ay xew-xewi diine lu mel ne lu mel ne korité lu mel ne tabaski lu mel euh, ba ci sax gàmmu bu ñëwee nag liñ doon jàppalee nit ñi dañ koy gën a yokk loolu mooy tax ñuy wax ne ay social ramadan mhm. yaakaar naa social korité mhm. barki démb ak tay rek liñ fi joxe ci ay ay ay ndimbal yu jëm ci ay nit ëpp na quinze millions mhm. ñu ngi ko doon natt ci quinze millions waaye fi ne dem nañ ba quinze millions cinq cent et quelque social ramadan bi comme ni xëy na danañ ci ñëw ci kanam waaye sëñ sëñ euh, Fallou mi ngi ko doon wax léegi bi ñuy tàmbali lañ waxoon ne deux mille cinq cent famille lañ bëgg a jël mhm. yaakaar naa suurus bi ñu doon def social ramadan bi rek mhm. lu mat soixante-sept millions amoon nañ ko waaye jamono ji suñ suñuy wax mhm. quatre-vingt-huit millions lañ mujj dem quatre-vingt-huit millions nga xam ne au ñuy taxawu deux mille cinq cent personnes muy ñaari junni famille ak euh, ñaari junni njaboot ak juróomi téeméer waaye léegi dépassé nañ sax ñetti junni njaboot léegi nag bu koor gi ñëwee nag dañ koy gën a yaatal loolu di ko lu mel ne ceeb lu mel ne suukar mm-hmm. ak lu mel ne ay koppar yoo xam ne nii nit ki buñ ko joxee liñ koy jox bu noppi dana mën a jël ab taxi mm-hmm. wala mu jël leneen lu muy jël man mm-hmm. ko yóbbu këram ci ak jàppandal dana am tamit luñ ci tegaat loo xam ne nii bu fekkee ne ku baaxoo woor la bu dog jotee dana mën a am lu mën a doge kon Serigne Mourtada ndimbal yooyu nekk loo xam ne lu baree bari la waaye tamit nekk loo xam ne day wéy ndax ñu si bari dañuy jàpp ni rek saa yu ñu jógee ci weeru cor bi ndimbal yi day dakk waaye dégg nañ li nga xam ni noonu nga ko waxee ci lu jëm ci korite gi ak yeneen événement yoo xam ni day ñëw waaye tamit leeral nga ci téeméeri junni yoo xam ni di koy bàyyi ci seen kees di ko dimbalee ngir weer bu jot ñu amoon yéene nag xam cent mille yooyu nga xam ni chaque mois da ngeen koy génnee ndax ci 1000 francs yi nga xam ni mbir yi dañ koy jaayante képp ci la yam wala am ngeen yeneen ndimbal yoo xam ni day jóge feneen ñëw jàppale leen ngir ngeen mën a réaliser seen ndimbal yooyu nga xam ni moom ngeen fas yéenee amal ci mbokk taalibe yi. waaw ngir ñëw ci sa sa sa sa laaj boobu. Mm-hmm. li ñu war a njëkk a xam ne rek mooy sociale moom bu ñu waxee ne. danañ teg 500000 ci barab. Mhm. tekkiwul ne 500000 ya boo ne woon ana 500000 ya dañ lay mën wax ne la 500000 yi mi ngi nii. Mhm. wala boo déggee ñuy wax ne commission sociale am na yéene taxawu ñaari junni nit wala ñetti junni nit wala moo xam. Mhm. boobaa boo leen laajoon ne li ngeen bëgg a jàppale nit ñi anamu. nekkul lu teew. mi ngi mel na rek bu état bi defee at mi jeexee. bañ na ñu ngi woote si waaw ba ne budgétiser nañ ne. bëgg nañoo def ci ren. 3000 mhm. milliards wala mhm. nangam. Mhm. loolu boo ko laajoon état bi ñoom. loolu du palpable loo xam ne mën nga cee teg sa loxo. waaye lu ñuy yaakaar la. ci misaal. social Ramadan bi bi muy bi muy bi ñu koy waajal. bi ñu defee bilan ndax weer wu nekk ci groupe bi Touba ci kanam yi. social lay wax lim am ci weer wi. wan fi mu ko dugalee. fi mu ko dugal mooy traitement malade yi def nañ ci nangam. Euh, jënd nañ ci ordonnance yi nangam. Euh, defar nañ ci ay dund nangam defoon nañ ci ay nangam defoon nañ ci nangam. Mm-hmm. wax total bi liñ collecté ak li ñu ko dugal. bi ñuy def social ramadan bi 3000 francs moo nekkoon ci caisse sociale 3000 mm-hmm. francs bi naan nit ñi bi ñuy def ay communication di di communiquer fii di wax. naan bi ngeen di wax naan seen objectif 60 mm-hmm. et quelques millions la. waaw booba 3000 francs moo fi nekk. pour bañ a kii sax am na ñun yoreel bor. ñun yoreeloon bor ñoo xam ne nii malade day ñëw. doon cas bu urgence boo xam ne mënoo koo ñàkk a taxawu mhm. nga jël yëfi jàmbur faje ko kooku ñooñu sax am na ci ñoo xam ne dellooguñ leen liñ leen liñ leen liñ ñu joxoon mhm. ba fii may wax ak yéen mhm. léegi nag buñ nee nit koy teg mooy suñu borom moom doo am yéene ju rafet mukk ànd ak pas-pas bu sell suñu borom di la esegal ñaareel bi itam mooy suñ Tuubaa ci boppam dafa liggéeyal borom moom ba borom moom gërëm ko gërëm loolu nag tayam ju nekk mhm. ñuy def jëmmi suñ tubaa lañ ci lañ ciy dàkk mhm. moo tax ñu dëgëru fit rek ne wax ne danañ def nangam mhm. waaye jamono jan koy wax booba trois mille francs moo nekk ci kees gi léegi nag ñu jéem a dox jëm ci nag maanaam ku ci nekk la nga mën nga def ko dugg ci ay nit ñeeg yooyu ñi nit ñi nag nit ñi nga xam ne ñooy joxe nag ñooy ñooy li ñuy dajale mooy dem nag ba tollu foofu te dajale bi kenn jiituwu ci Cheikh Mamadou Mountakha mi yàlla na fi yàgg te wér gis ngeen chaque année ba ci tabaski geeg yëpp da ciy joxe ba ci màggal sax basang yi ni joxe da ciy joxe mhm. ren ji joxe na ci dix tonnes ceeb mhm. noonu tamit la ñeneen di joxe ñeneen di joxe ñeneen di joxe loolu mooy dem nag ba àgg ci foofu mhm. bu ñu waxee itam ne cinq cent mille yooyu ñuy teg pour pour pour pour pour kii bi pour ordonnance yi doonul cinq cent mille yu tegee waaye dafa am benn pharmacie bu ñu lëkkalool boo xam ne nii képp ku indi ordonnance te ñu vérifié ne li ngay wax lu wér la mhm. dañ koy yónnee pharmacien bi mhm. ordonnance bi dañ koy yónnee mhm. yow wax la nga dem ci foofa du la jox xaalis nag boo demee foofu moom mu jox la garab gi nga soxla woo euh, bu ko defee moom yëpp mi ngi koy archivé bu weer wi dee day yónnee waat mbooleem ordonnance yi fa jaaroon yëpp ñu comparé ko ak ñu lu yor jël xaalis ba fay ko nga xam ne même borom pharmacie bi jamono jin koy yónnee maladie bu ne woon indi leen fay gi ñun yoruñu ko maanaam dañuy promesse bi dañuy lebal. Mm-hmm. tàmbalee la première jëm la 30. bu ñu demee ba la 30 nag diggante boobu communique communiqué bi ñuy def. Mm-hmm. mooy waral nit ñi ñii di joxe 1000F mm-hmm. ñii di joxe 5000 ñii di joxe 100000 di ko jaarale ci numéro Orange Money beeg Wave beeg. compte bi bu demee ba weer wi dee nag ci leen di génne fay pharmacie bi. yóbbu ci li yóbbu fee def noonu noonu. lañ koy noonu bu dee ci koor gi tamit noonu gis nga. da ngay dégg ñu ne diw joxe na 10 tonnes di joxe na 30 tonnes di joxe 40 tonnes. Mm-hmm. waa réew sàngam joxe nañ 5 millions waa réew sàngam joxe nañ 1 million. Mm-hmm. sëñ diw sàngam joxe na nangam sëñ diw sàngam loolu nag la ñuy nag. ba mu mm-hmm. toll lim boobu. waaye bu ñu xoolee bi social Ramadan bi tàmbali moom 3000 francs moo nekk ci côté social. foofu tamit dinaa fi ba léegi ne so commission sociale yorut xaalis liquide bu teew. boo xam ne da a ko alma 1 million mu la ko. ndax nit naa ko faral di wax. Mhm. rawat na ci dëkk bi. Mhm. dëkk bi fi mu toll nii. ñi fi nekk ëpp na un million de personnes. Mhm. ci li ma jàpp. population bi. bi. waaye fi ne néew population bépp maase woon doon joxe 1000 francs par weer. kon léegi ne si duñ duñ duñ jéggaani fenn dara. waaye dëkk bi lu ci bëree bëri booy tege. nit ñi dañuy taxaw fee ne man bokkuma ci ñi ngay teg. booy séddale nag ñëpp ne indi sama wàll. loolu suñu saali ko mos a wax benn. benn commissaire bu ñu doon bu ñu doon indi ci police bu jaanatu bi mu ñëw di ñaanloo sëñ Saliou ngir dañ ko fi affecté ci dëkk bi mhm. sëñ mi ne ko indi nga ci indi nañ la ci dëkk bu bu jafee nekk mhm. mooy dëkk la boo xam ne booy tege mhm. ku nekk day taxaw fee ne man bokk ma ci ñi ni teg mhm. waaye booy joxe nag ku nekk talal sama loxo sa loxo ne sama wàll kon ñi nekk fii ñëpp da ngay gis garam place yooyu yëpp da ngay gis mhm. Touba Ca Kanam def benn réalisation mhm. nga dégg ñu naan gars yi di jàmbaar lañ ah nañ moom te amaana koy wax boo nekkoon ndax mas sa ñaar dërëm mosu ko cee dugal social bi dañ noonu lay demee maanaam li ëpp ci nit ñi joxewuñ ci fi ne nii boo toogoon nit wax ba àggal social li ñu def jàmbaar lañ nangam nangam wax ba àggal nga ne ko loo ca def. Mm-hmm. ñaare du la wax ne la def naa ca nangam. mooy nit ñi moom li ci ëpp ci nit ñi ci ci nit ñi du ñëpp nag. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ñu jox leen lañ gën a mën a dégg ci ñuy joxe ñoom. te loolu tamit ci domaine yëpp. Oh. suñu borom sax da koy da koy wax. wa xaliilun min ibaadiya sakoor sant sant yàlla rek. ñu walakin aksara naasi laa yaskuruun ñu ëpp ci nit ñi duñ sant. Mm-hmm. wa xalilun min ibaadiya sakoor mm-hmm. kon noonu rek lay noonu rek lay tëddee mm-hmm. ni lu teew la lu fi tege doonut tamit xaalis boo xam ne nii dañ koy jox président social mu def ko ci ay poosam comme ñi nga xam ne ñenn ñi noonu lañ koy jorte nga xam la rombee fenn sax boo mu yëkkati jox ci ay ay bu dee social bi xaalisam mi ngi jaare ci lenn mi ngi jaare ci Orange Money bi wala Wave bi Orange Money bi euh, wala Wave bi man mii di wax ak yéen sax xaw ma code bi koy génne mhm. ndax man yoruma ko xaw mosuma xam code bi mhm. kanee na yor téléphone bi ki yor téléphone bi ki yor code bi bokkul mhm. bu fekkee ne xaalis dafay génn itam du man maay signé xaalis bi rek mu génn day jaar ci ay procédure ñu xool ba xam ndax lii normal na wala déet yu yo yónni ay enquêteurs enquêteurs sociaux yoo xam ñooy xool ba xam ndax lu wér laam déet bu noppee sec bi ñetti kon ni ko nit ñi jàppee nga xam ne da jàpp ne automatique mm. nga xam ne bu soxla si duggee dañuy jàpp ne sëñ moom boo ko waxee rek ci saasi moom mu génne jox la waaw waaw loolu lañuy jàpp loolu loolu tamit li ci am mooy mm-hmm. bu fekkee ne man nit ki damaa wa damaa wax yitteem damaa wax yitteem mm-hmm. te fekk booba jamono jooju yàlla def ma man ko man mm-hmm. nga xam ne mën naa ko ma fi nekk di expliqué naan la Touba ci kanam nii ngay def nee ngay def ak nee ngay def dama lay yëkkati jox la su ma yëkkatee jox la nag yow boo génnee wax ko keneen wax génne wax Mm-hmm. yëf yi dem ba siiw mm-hmm. yooyu nag mën na laa yóbbe ba yow mi doon joxe sax mujj mën ngaa mujj far doon kaa yow yow mi nga xam ne yaa doon <laughs> <laughs> yaa doon joxe waaw léegi nit ñi duñ mën a ràññee la loolu a ràññee jëmmi nit ki mm-hmm. ak jëmmi Touba Ca Kanam duñ ko mën a ràññee ndax ku la wax rek bu fekkee ne yàlla dogal na jamono booba nga man ko yow boo ko defee pour moom li ko jox social Touba Ca Kanam bi la euh, moom mën na koo siiwalaat muy dem ba ba waaye ci nga ci ni Touba Ca Kanam di doxe moom bu fekkee ne man dama lay jox loo xam ne nii xaalis social Touba Ca Kanam la man mun du ma la ko jox directement dangay dem ci siège Touba Ca Kanam ñu bind benn pièce de caisse mhm. bind ci sa tur sa numéro téléphone nga signé ko ngir bu ëllëgee bu nee xaalis bi fu mu dugg ñu mën a indi en traçabilité waaw ndax ndax bu loolu man su fekkoon ne damaa bu fekkoon ne li damaa yor xaalis social def ko ci sama poche mhm. léegi ma dem ne leen jox naa sëñ Fallou Sylla cinq cent mille jox naa soxna maam jaara cinq cent mille léegi lan mooy prouvé ne man jox naa la cinq cent mille xam nga amul amul lenn lu koy lu koy lu benn ki may waxal mu gëm ko wala mu ñàkk koo loolu nag kon war nañoo xam ne eh, lu yombee noonu mënut a nekk ndax bu fekkoon ne noonu lay demee nga xam ne dañuy jël xaalis jox la ko yow ngay seet ki nga ci bëgg a jox ak yooyu eh, dëkk bii moom li fi baaxoo am ci Sénégal sax laay wax rawatina ci dëkk bi mbir moo yor mu am solo te te yomb te te te la boo ko yoree lu mat fukki fan da nga ci gis da gis fukki nit ñoo xam ne dañuy taxaw pour yor ko comme mm-hmm. waaye doo ko yor mukk di wéyeeg moom dem. Mm-hmm. loolu moom mën naa lu lu walaa la ci tubaa ci kanam gépp mm-hmm. euh, souvent da nga ciy gis nit ñu bari ñoo xam ne dañ ciy nekk di yëngutu di kii day dem ba mu yàgg da ngay jàpp sax ñii daa am lu leen ci nekkal. waaye lu yomb a xam la maanaam nit ñi moom duñ la gis ci menn mbir moo xam ne njariñ lu teew ma ba noppi te ñëwuñu ba bokk koog yow buñ la ca bàyyee rek dafa fekk ne lañ koy séentu mën na caa bañ a am waaw ndax looy def rek bu bu fekkee ne am na am na am na ay euh, rentabilité bu teew bu ci nekk rek ñeneen dañ koy def ci sa wet ci ci kaaw malade yi malade yooyu ñëw sax ndax euh, euh, bëri na ñoo xamante ni dañuy am feebar yoo xam ne sax mën nañ ne duñ soxla ordonnance mm-hmm. mais feebar yoo xam ne day xaw a maladie grave lay doon boo xam ne mën na laaj ñu évacuer leen ca bitim réew wala ñu évacuer leen jëlee leen fii Touba yóbbu leen Dakar ndax mës ngeen am cas yu demee noonu waaw dañuy dañuy am cas yoo xam ne nii dafa nekk euh, ñu ñu jëlee leen tuubaa yóbbu leen dakaar wala faneen ci régions yi moom loolu moom lu bari la hmm. loolu moom yaakaar naa fii may wax ak yéen rek am nañ ko jamono jii may wax ak hmm. démb rek am na am na ñu doon def ay opération ñu ñun ñun kii waaye bu dee ci bitim réew moom euh, doon nañ ko commencé waaye. Mhm. ñaar ñi ko jot defal ñëpp. Mhm. dëgg la ñu wéradi woon lañ waaye dañ caa am ay ay ay kii xam nga nit ñi rek. Mhm. Eh, ñaare li ñuy wax naan dañoo bëgg a dem bitim réew fa lañ ko mën a faje am na leneen lu nekk ci ginnaaw lu bokkut ak bëgg dem bitim réew faju loolu nag dal nañu. maanaam dem di toog waaw dem di toog wala dem réer yi demee noonu am loolu man man am na am na. na ci ñu ñoo xam ne nii dañ ci doon dox ay ay ay jéego ngir ñoom ñu mën a dem bitim réew kii waaye ginnaaw bi bi ñu laajtee ay renseignement euh, ñële fan leen yóbboon sax gisatu ñoom gisu gisatul leen hmm. am na ci keneen koo xam ne ni tamit euh, ñëwoon na fi wax fi ay yitteem yu jàmp hmm. ba wane billet bi mu war a demee yooyu yëpp waaye ban ko toppatoo hmm. booba lañ gën a xam ci xam ci moom dara loolu moo tax nag ginnaaw laaj lañu am la def ko fu xam faaw ki ñuy toppatoo moom dañ ci mën a teg loxo xam fu mbir yi mujj waaye bu dee Dakar moom loolu moom bari na fa bari na ay malade yoo xam ne dañuy war a def opération ñu war a def Eh, yu yoo xam ni nii du duñ ko defee bi. Mm-hmm. ñu leen koy ñu leen ciy taxaw. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo yor ay maladies chroniques lu mel ne ñi diabétique yi wala ñi nga xam ne dañuy def jalis mm-hmm. wala yu mel noonu xam nga kooku du yomb nga bëgg koo jël en vie. waaye ñooñu dañ leen di jëlal ay science par exemple ñu ne nit ki diabète jël nañ ko deux mois wala jël nañ ko trois mois wala nit ki jalis yi jël nañ ko nangam ci weer. noonu lañ leen taxawoo. bu dee ñeneen ñi nga xam ne dañuy def opération ak ay yu ni mel moom loolu moom su bëree bëri dañ leen jël en charge di ci profité waale sax di wax ne mhm. incha allahu rabbi koor gi comme li ci ëppoon moom li ñu doon joxe mooy ay dund ay dund lañ doon joxe mhm. buñ jógee ci koor gi weer wi ci topp rek dañoo bëgg a concentré ci malade yi mhm. ndax ci kanam social tabaski day ñëw te comme social tabaski dañ ciy joxe ay yére daaka daa joxe na woon nañ lu ëpp juróom juróom juróom fukki junniy yére ak lu topp ak ay xaalis boo xam ne dana la mën a jàppale ci xar mi nga xam ne moom la nit ñi jëfandikoo. Mhm. moo tax nag balaa booba nag dañoo bëgg a wu ci maladie. ngeen toll bëggoon nañu xam tamit euh, réalisation yi nga xam ni moom moo nekk ci seen kanam ak tamit social bu Touba ca kanam naka la fas yéenee doxe ci li ñu dëgmal waaye tamit doon nañu sàkku. nga lancé benn appel ngir woo mbokk taalibe yi fépp foo xam ne nekk nañ fa ci àdduna bi parce que jot na nag jot na sëkk képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu kàddu yi waaye tamit yaa ngi teewlu li nga xam ne sëñ daa leeral na ko nga def sa ñaq ci Touba ca kanam parce que jot na sëkk kon ginnaaw boo leeralee li nga xam ne dëgmal nga ko tamit ñu ngi sàkku ci yow nga lancé benn appel pour woo mbokk taalibe ñu participer ci liggéey bu rëy bu am solo bi li li li li ñuy wax rek mooy comme mm-hmm. ni nga xamee ne moom lañ ko doon def ci koor gi mm-hmm. ci koor gi moom liñ doon liñ doon taxawoo nit ñi mooy séddale leen ab dund mm-hmm. léegi wax naa ne li ñu séddale ci koor gi ci ab dund muy sonne sociale boobu ëpp na cent quarante ton ëpp na ko cent quarante ëpp na ko bilan définitif bi dana génn xam naa sëñ Mbàkke say mais dana ci def benn vidéo pour génne ko li ñu séddale ci ay suukar ëpp na quinze tonnes li ñu séddale ci xaalis ëpp na huit millions lépp lépp buñ ko buñ ko xoolee mhm. liñ amoon lépp man na 88 millions mhm. te ñu ngi ko doon ñu ngi doon wax naan 63 millions buñ ko amee danañ mën a def liñ bëgg a def mhm. ñu ngi doon wax tamit ñaari junniy kër ak juróomi téeméer waaye mujj nañ dem ba ñetti junniy kër kon loolu moo doonoon ci ci ramadan bi korite gi gis ngeen démb wala bërki démb ñi nga xam ne ñoo ngi doon suivre lenn ci réseaux sociaux yi nga xam ne ni ay membre Touba ci kanam lañ defoon nañ ay enveloppe yoo xam ne dañoo jël dëkk bi biir gi ak bitik dañoo jël ñeenti équipe lañ ko defoon équipe bu nekk day am chef d'équipe ak ñam war a àndal. Mhm. ñu defa jox leen benn fiche boo xam ne nii boo demee ci kër. Mhm. fii ngay dem doog ko xam dañuy wax ni ñii jëm leen penku ñii jëm leen sow ñii jëm leen gànnaar ñii jëm leen saalim. Mhm. boo demee am na ci kër yu bari ñoo xam ne fekk nañ ñu ñu ñu xéwlu ba fatu. da ngay wax asalaamaaleykum borom kër gi tijji nga ne ñun la waa Touba Kanam commission sociale mu génn nga laaj ko ndax mën nañoo xam tur bi dafa am ay xéewal yu ñuy séddale mu ne la waa bisimilah nga jël turam bind jël numéro téléphone am bind jox ko mu signé pour wane ne jot na ci. Mhm. nga yëkkati enveloppe bi nga koy jox nga jox ko. Mhm. loolu def nañ ko ci sancaan yeeg yooyu. am na tamit yu def ci biir ci biir ci biir dëkk bi. Mhm. ci biir dëkk bi li ci ëpp ci biir dëkk bi lañ ko lañ ko jël. ci biir dëkk bi tamit ñi ñuy jël dafa am ñaari xeet na ñoo xam ne nii. Euh, manees na leen a gis nii. xam ne ñee la waaye am na ñoo xam ne itam. li alxuraan di wax rek naan am na ci nit ñi ñoo xam ne nii boo leen gisee da ngay jàpp ne seen dara manqué wut te fekk mhm. booba la ñuy dunde ñoom rek ñoo ko xam mhm. loolu loolu tamit dañ ciy jël ab ab mhm. ba ñu ngi ko budgétisé woon ci quinze millions bëgg koo joxe ci kori gi waaye fii may wax ak yéen eh, ëpp na quinze millions ci liñ liñ liñ joxe te loolu lépp nag mi ngi jëm ci rek comme loolu ma ko doon waxee léegi lu waaye man lu waaye am eh, joxe ko social itam compte compte social bi bokkut ak compte 1000 francs yi. ki war a joxe ci 1000 francs yi. compte yi am na compte yu mu war a dugal. ki war a joxe ci social bi moom benn numéro lañ am muy numéro bi faral di affiché ci vidéo sociale bi muy 77 914 26 68 ak benn compte numéro UBA bi nga xam ne mooy ci suuf. foofu nag lépp loo ci def moom jëmut ci ay tabax. jëmut ci ay ay kii waaye lim jëm mooy ci nit ñi. nit ñi nag mën naa am. ñu defar leen ci ay toilettes mën naa am ñu ñu faj leen ci mën naa am ñu def gis ngeen ten tamit taxawaay yi xam ne def nañ ko ji mooy image bi ngeen di gis mm-hmm. bu daayira Muxaddamatul Xidma dañ fiy taxawu ñi nga xam ne ni amuñu fun doge mm-hmm. wala ñi nga xam ne ni doog fekk na leen ci yoon wi ñu am ay xéwal yu fi fiy def mm-hmm. mu mu doon loo xam ne nii bokk taalibe yëpp ñoo ci war a di jàpp wala buñ ci jàppee dana baax bokk ngir bañ a wax ne ñoo ci war a jàpp loolu commission sociale dugaloon na ci ay loxoom loxoom mhm, mhm. am na tamit yeneen kuréel yoo xam ne ñi ngi yëngutu ci dëkk bi ci wàllu xam-xam ak yu ni mel mhm. dugaloon nañ seen loxo daare kaamil yi nga xam ne ni ñoo nekk ci ci ci dëkk bi ba génn dëkk bi sax lu mel ne daarul muxti daaru salaam kasañu soxebu daaru xudóos mbàkke xewar ba daarul ba ba daaru salaam mbàkke xewar ba ci njaareem yooyu yëpp demoon nañ fa demoon nañ tamit ci orphelinat maam jaare bi mhm. ak yeneen ak yeneen sëriñ daare yi daanaka jël nañ ci lu ëpp téeméer mhm. sëriñ daara sëriñ daara yu soxna yi mhm. ëpp na jël nañ ci lu ëpp fanweer ak juróom ak dëkk bi li ñu recensé ci sancaane rek matoon na mille trois cent li ci des ñu jël ko ci biir biir dëkk bi loolu boo ko xoolee ëpp na ñetti junniy kër yoo xam ne jël nañ ko loolu mooy 88 millions yooyu ñu ñu doon wax naan moom lañ dajale ci social ramadan bi buñ ko génnee tamit liñ ciy defaat mooy social korité gi génn nañ ci nii li li ñu dëtmal mooy concentré waat ci li nga xam ne ni moom lañ nekkoon te mooy taxawu niñ ci wàllug wér-gu-yaram mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo ëmb lu ñu xewloo ak ñi nga xam ne ñoo ëmb lu ñu dëkk mm-hmm. bu demee ba mm-hmm. li ci jiitu mooy am na ñoo xam ne nii yàlla def na leen ñu mën a am yére yu bees ci bisu tabaski gi te dafa bokk ci sunna yi mooy nit ki sol yére yu yees ñu taxawu suñu bokk taaliba yi itam ñi nga xam ne mënul luñ ko seen seen bopp daaw amoon nañ lu ëpp juróom-ñett juróom fukki junni yére ren tamit bëgg bëgg nañu am tamit comme ñu doon def ci jàppale nit ñi ci lenn ci am xar nga xam ne ni liñ lay jox bu mhm. fekkee ne mënut a jënd xar tamit dana ci sori bu ci jugee danañ dem ci màggal gi màggal gi niñ ko doon defee danañ def ay waañ ci ñeenti xibla yëpp ngir sancaan si fa nekk bu ñu mën a toog foofu màggal fa ci ak dal comme ni ko waa dëkk bi di defee mhm. ci lu dul ñuy jël seen seewo yi di ñëw fii mhm. ndax ñi ngeen di gis ñuy yor seewo yi di ñëw fii di tibb ay xéewal lu boo leen demee fekk leen fan dëkk ñoom ginnaaw ba noppi dañuy jël xéewal googu sebetewaat ko mhm. dencaat ko boo ëllëgee ñu toggaat ko loolu lañ ñu bëri moom lañuy def loolu moo waral nag ñun mhm. ko jëlee mhm. euh, dañuy dem defal leen ay waañ foofu dañuy taxawu prison Jurbel bu Mbàkke ak daari alxuraan ni ci wàllu basang am na ay association nekk ci dëkk bi yoo xam ne dañuy yëngu ci xam-xam ak ay walloog yeete gi ñu mel yooyu yëpp ci màggal gi lañ leen taxaw kon daal li ñuy mujj rek mooy sant ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ñi nga xam ne ñoo féete ci bitim réew yëpp ñuy waa diaspora bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mhm. ndax lii lépp bu ko commission sociale mënee def mhm. dafa fekk ne dafa am ay bokki taalibe yoo xam ne jamono ju nekk ñoo fiy dugal seen loxo mhm. loolu nag ñu ngi ciy jiital waa réew mi rawatina waa dëkk bii rawatina kilifa nga xam ne nii mooy jiitul murid yëpp di ñaan suñu borom yàggal ko fi defal ko ak wér waaye tamit ñi nga xam ne ñoo féete bitim réew ndax demuñu bitim di wut am koom moo xam ne nii xëy na ngir seen bopp la waaye ginnaaw bu nekkee bitim réew jamono ju nekk ci li ñuy yëngu ak di ca dox mooy lu defar dëkku sëñ Tuubaa bi ak lu tax ñu mën a am xéewal yoo xam danañ ko liggéeyal sëriñ bi tax na ñoom itam jamono ju nekk ñu ngi ciy jàpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal tey woowaat suñu bokki taalibe yi nga xam ne sañ nañ leen a woo ñu gën a dugal seen loxo ci Tuubaa ci kanam ci weer wu nekk ñaar téeméer ndax liñ ciy def lépp ñun suñ suñu bopp ñoo koy jariñoowaat suñu bopp ñoo koy jariñuwaat mbedd yi bu leeree ñun ñoo ciy jaar mhm. mbedd dëkk bi bu tawut ñun ñun lay jariñ mhm. dëkk bi bu amee bërëb bu fajukaay ñun lay jariñ mhm. ndax bu ñu wax rek ne état lépp moom la war état dëgg la état lépp la war waaye état mënul lépp bu fekkoon ne état mën na lépp kon du ngeen gis fii njiitu réew di génn di wuti ay ndimbal ci bitim réew kon ñoom la lépp war waaye mënuñu mënuñu lépp te naka jekk itam yoonu murit sëñ sëñ Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo mooy mooy mu assis bi mm-hmm. ci loolu la sose woon yoonu murit mooy ñu fexe ba ku ci nekk ñu jéem a mënal suñu bopp mm-hmm. jéem a mënal suñu bopp nag tekki wun ne soxla wun ci état dara mm-hmm. déedéet ndax ay citoyen lañ ci réew mi lañ nekk dañuy fay ay impôt comme ni ko citoyen yëpp di di fayee waaye nag dañuy gàttandu état nekk ca état fekk ñu si ndax état lépp moom la war waaye mënul lépp kon loolu ñu ngi ñaax suñu bokki taalibe yi ñu gën a farlu ci ñaar téeméer yi waaye itam ñu gën a farlu ci ci ñen sañ a ñaax ci lii nga xam ne moom la ñuy tàbbal ci social bi te ku ko ci dugal itam ci nit ñi dong la jëmaat te suñu fàllu danaan wax ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi di waxaat itam ne vidéo yi ngeen di faral di gis léeg-léeg nga gis ñuy joxe ay xéewal nga gis nit ñi ni génne ak yooyu li ñuy def te duñ ko génne moo ëpp foofu li ñuy def te di ko génne bu doon la quatre-vingt-quinze pour cent yëpp duñ ko ñaare na jamono bi mhm. nit ki buy joxe alalam nga naan ko yóbbul naa la ko bara sàngam yóbbul naa ko bara sàngam mhm. te amul benn firnde buy leeral ne fii nga ko dugal mhm. su bu yàggee mën naa tàyyal loolu mooy waral yenn vidéo yi ngeen di gis képp ku ngeen gis tamit ñu génne ko ci vidéo dafa fekk ne moom moo bëgg ñu ñu génne ko waaye duñ jékki-jékki rek di génne kenn waaw sëñ Mourtalla xam naa ne euh, dañu ñëw rek ci euh, euh, liggéey yi ngeen di def ndax yaakaar naa ne comme ni ko soxna Maam Jaara leeralee mu jëm ci social bi nga xam ne lii ci ay koppar yu ngeen di joxe la mm-hmm. lii ci ñu ngeen di jàppale ñu tawat la ci ay ordonnance ak yu ci aajowu mm-hmm. lii ay euh, xéewal lu ngeen di joxe la maanaam lu jëm ci ceeb ak suukar ak yeneen yi mm-hmm. waaye mu mel ni it yéen a ngi tabax ndax am na ci euh, bërëbu euh, famille yoo xamante ni seen dëkkuwaay xaw naa jéggi dayoo ca nam mel dafa mel ni yooyu tamit am na jéego yoo xam ne commission sociale mu ciy liggéey waaw yu mel noonu bari na def nañ ci yu bëree bëree bëri loolu itam sëñ expert meli ma ma jàkkaarloo bi ñu koy tàmbali bari na barab yoo xam ne nii ba ñuy soobu di leen jéem a defaral ay néeg mhm. boo benn dërëm nekku fi mhm. maa ngi fàttaliku loo xam ne du ko far du ma ko faral di fàtte mooy am na benn bis boo xam ne jël nañu ab engagement mhm. benn soxna buñ génne woon dëkkuwaay bi xaw a doy waar lool te mu doon wax ne mook jabootam fii lañ dëkk boo bañ koy engage ñun suñu bopp mënuñu ko ndax ñun ci suñu bopp ni suñ borom di jëfalanteeg yenn doomu aadama yi da koy jëfalanteeg ñun mhm. léeg-léeg da ngay xëy suba man dara léeg-léeg nga xëy suba doo man dara mhm. léegi nag léeg-léeg boo engagé nag mbiri jàmbur nag mhm. te kooka yaakaar la ci loolu dafa diis mas nañoo woo benn oto suuf ba mu ba commencé wàcce suuf si ci ci ci soxna si ñu ko war a defal te booba man yoruma yoruma vingt cinq mille vingt six mille francs yu ma ko fay yoruma ndax booba fekk na li ma manoon lépp def naa ko ca foofa ba am na xeer bu bu nekkoon sama sama barab damaa jël xeer boobu yóbbu ko fa léegi nag oto bi ñëw na te amuñu lu ko fayee nga xam ne dañoo mujj obligé may laaj borom camion bi naa ko ñaata lañ ciy fay ak yooyu di xaw a làmb sama poos xaw cee yeex mu laaj ma ne moo lii ngeen fii def lan la ma ñu leeral ko ci la ne man def far naa ko def addiye nga bu fekkoon ne néewu def naa ko addiye mhm. yëf yi mën naa xaw a doy waar wala mhm. Mhm. ñëw ba dëkk ba dëkk bi ñu soo di ko lijjanti kon ci noonu rek lañ ko doon defere ci loo kaw lool tamit am na ay bokki taalibe yoo xam ne nii ak ay kilifa sax yoo xam ne jël nañ engagement ci kër yi waxoon ne dañ koy defar ku ci nekk jël ab ab ab bët ab barab ne da koy defar ku mel ne sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abdou Fata mhm. am na barab boo xam ne moom moo ko jëloon ne moo koy defar mhm. ku mel ne sëñ Xaadim Omar am na barab boo xam ne moom moo ko moo moo koy defar am na ay bokk yu nekkoon Italie yoo xam ne tamit ab daayir la mhm. dañoo jël engagement ci ñeen ñi ne ñoo leen defaral yeneen yi ci des nag commission bi ci boppam moo ko doon defaral boppam am na ci ay barab yoo yoo xam ne itam ndox dafay manqué lool Touba ci kanam am na commission boo xam ne moo yor wàllum ndox mi waaye ci biir nit ñi day am ñoo xam ne nii ndox mi day dem ba wër leen waaye seen kër du am ndox léeg-léeg sax mu doon ñoo xam ne nii ka dëkk day paralysé nga xam ne pour mu am ndox faaw dañ koy rootale kooku nag bu ñëwee sàkk ko ci commission sociale faaw dañ ko ciy jàppale mm-hmm. loolu tamit am na ci ay bokki taalibe yoo xam ne léeg-léeg dañuy ñëw ne dañoo bëgg a may ay nit am ndox mm-hmm. ci nangami meetar yow nga xool ci kaa yi fi am nga yebal leen fa bu ko defee ñu ñu mën ko mën koo yóbbul mhm. kon daal ci kaw loolu moom defar nañ ci ay nit yu bëree bëri ay ay dëkkuwaay defar nañ fi ay nit ñu bëree bëri ay ay ay ay ay ay barabu sudurlukaay mhm. yóbbul nañ ci ay nit ñu bëree bëri ay barabu ay ay ay ay ay ndox yun mën a yun mën a jëfandikoo mhm. daanaka bu ñu jógee fii ñu toog nii buñ fi jugee ci yu mel noonu donc lañuy la nekkaat ci ci guddi gi incha allah rabbi yooyu daa mel ni wéy na ba wéy na ba ci ci daa ba daara yi am na daara yi ñoom am nañ commission boo xam ne nii li muy seere mooy daara yi muy commission scientifique et culturelle mm-hmm. ñu koy wax alhilmiya wa saqaafiya ñoom ñoo yor wàllum tabaxu daara yu demee noonu mm-hmm. ñoom ki nga xam ne dafa bëgg a euh, ñu defaral ko am day bind ab bataaxal boo xam da koy adressé Touba ci kanam mm-hmm. wax adresse fi mu dëkk ak numéro téléphone am ak yëpp ba nag wax li manque ci daara yi ñoom nag am nañuy sart sart bi ci njëkk mooy daara ji day nekk Touba ndax Touba ci kanam lañ wax kon bu génnee Touba moom bokkut donte yéene ji mooy mu dem ba daj réew mi. Mm-hmm. daara ja tamit ci ko ki koy ki koy defarlu da koy moom. Mm-hmm. waaye bu fekkee dañ ko ko abal bokkul. Mm-hmm. wala da koy luyee bokkul ndax lañ fay def kon defaluñ la ko waaye keneen lañ koy defal. da ngay jàngale tamit te yàlla tax. donte ñëpp dañuy jàngale te yàlla tax waaye bu fekkee da nga am ak payoor koy laaj par su boobaa bokkoo ci daara yi ñu war a taxawu. boo indee leetar yooyu nag dañ koy dajale bu ñu demee ba jàpp benn suur ñëpp teew ñu génn leetar yi ku sa daara génn rek ci ñi nga ci ñooñu ko bokk loolu moom commission scientifique moo ko yor waaye day am ay daara yoo xam ne itam social moo leen di taxawu ci yenn yi ndax léeg-léegi dañuy ñëw fekk commission scientifique ñoom daara yéen doon jël man na te ñoom budget lañ yore bu dee scientifique ñoom dañoo am budget bu ti waa ci kanam di génn di leen jox ci social lañuy lañuy la ñuy dem euh, social nag moo leen di jàppale ci ay wàllu basang yu nekk ci daara yàq ay mm-hmm. Mm-hmm. xale bu fa taw bu fa taw bu fa wéradéeg léeg-léegi ci ab dëkk ak yu ni mel social boo leen ci jàppale mm-hmm. en plus nag ak bu fekkee ne ñee mm-hmm. dañoo dañoo matal seen budget su boobaa keneen ku ñëwaat tamit ci social bi dañ lay dañ lay yebal waaye sëñ daa bëggoon nañoo am tamit xayma bi ci jamono ji ñaata sëriñ ngeen tabaxalagun seeni daara ci biir dëkk bi di Touba. waaw loolu moom dana dana dana xaw a jafe ngir ma wax ko ndax comme ni ma ko waxee woon léegi bu dee ci social bi moom ci population bi ñi nga xam ne yoruñu ay daara ci lañ ëpp lu ñuy lu ñuy lu ñuy luñu lu ñuy jëflanteel mhm. waaye bu dee ci jëmmi daara yi tabax mhm. daara yi yooyu mhm. moom lu ci ëpp commission scientifique moo ko def moo koy def moo tax ñoom ñooy gën a mën a xam ñoom ñaata lim ci ay daara lañ defar ñun léeg ñu jël daara rek mooy daara joo xam ne dem na ba scientifique fekk ñoom seen budget bi ñu waroon defaree daara yi. Mhm. noppi nañ ci. Mhm. su boobaa pexe amut soo fi social ngay ñëw. Mhm. loolu moom am na ay benn benn. daara yoo xam ne nii defar nañ leen fi. te tamit ñu ñu ràññeeku lañ waaye comme mbirum social moom dafa doon mbirum suutura. moo tax doo mën a lim daara yi. bu doon ci kër yi tamit ak ci kii yi li ñu ci defar ci kër kenn xamu toll. yaakaar naa màggal gi rek lu tolloog 19 def defar nañ ko ci màggal gi. ci tabaski gi noonu korite gi tamit naka jekk daan nañ jël ay kër ak yooyu mhm. waaye ren dañoo bëggoon a concentré wu ci ñi wér moo tax mhm. dañuy bàyyi mbirum kër yi ni néeg yeeg yooyu ba jamonoy ba jamonoy mhm. tabaski incha allah aman jaara fekkee ne amaato question waaw dafa mel ne leeral yi am na solo trop suñu murtadaa am nañu mbégte ak kontaante bu baax a baax parce que li nga fi leeral lépp dafa nekk loo xam ni yittewoo nañu ko woon a xam tey dañ ni lépp lu waay di wax rek même lu mu lu mu lu mu doon doon li am ki nga xam ni moom moo ko dund moom moo ci gën a yell te defe naa ni lii nga fi doon leeral yow yaay ki nga xam ni yaa ko dund ak commission bi nga xam ni ñoom nga ko àndal eh, di wax ni nag fépp fu mën a nekk di dégg suñu kàddu fépp fu mën a nekk te am yéene bi nga xam ni Touba ca kanam am na ko jot na sëkk nga ñëw dugal saw ñaq ci Touba ca kanam ànd ak ñoom ci liggéey bu am solo bi ba tey dañuy lancer appel di woo mbokk yépp ak fépp foo xam ne rek nekk nañ fa ndax defe naa ni képp kuy ab murit rek képp ku bëgg sëriñ bi képp ku bëgg dëkk bi yëg-yëg bi nga am mooy yëg-yëg bi waa Touba ca kanam am te mooy Touba jëm ca kanam kon sëriñ Fallou lay daal di rek delloo kàddu gi ginnaaw bi nga xamee ne sant nañ sëñ Mourtada gërëm ko ci leeral yu am solo yi nga xam ne leeral na ko lépp ci biir tuubaa ca kanam jërëjëf soxna Diarra xam naa ne sëriñ Mourtada su fekkente ne mën ngaa ñëw rek ci li mu gën a Euh, tënkoo ci mhm. fekkente ne commission sociale am nañ ay projet yu mag yoo xam ne moom lañ naal mhm. ci kanam lan la waaw bari bari na ci luñ luñ luñ luñ luñ naal mhm. ndax euh, xam nga dañuy wax ne nit ki ni nga koy ja di ko may di ko may jën jàngal ko nuy nappe jàngal ko nuy nappe moo gën loolu am am nañ ci ay naal yoo xam ne nii bëgg nañ eh, am nañ ñu ñuy séqal ay waxtaan yoo xam ne bëgg nañ ñi nga xam ne nii ay ndaw lañ te te nangu nañoo liggéey nga xam ne ñii moom dañoo bëgg liggéey moom mm-hmm. ñi nga xam ne dañ leen war a forme ngir ñu mën a am métier incha allahu rabbi ñu ngi ciy jéem a dox mm-hmm. ak ginnaaw bu amee métier tamit ñu wutal leen loo xam ne danañ ci man a jàpp mm-hmm. loolu mu ñu ngi ci bu dee ci ñi wéra di tamit lu mel ne ay mutuelle bëggoon su Touba Ca Kanam sax bëggoon na créer benn mutuelle boppam waaye mel na ne loolu lu jafe la ñu ngi ci doon waxtaan ak ak docteur soxna Ndeye Maguette mi nga xam ne moo jutee district district sanitaire bu Touba. Mhm. ñu ngi koy jëfal bu baax tamit di nuyu mboolem docteur yi nekk ci ci dëkk bi yëpp ndax ñoom tamit dañuy jëflanteeg ñoom ci lu bëree bëri. Mhm. ci wàllu mutuelle ak yooyu am na yuñ ciy waxtaane yoo xam ne bëgg nañoo inscrire ñu bëree bari ci mutuelle de santé yi. Mhm. Euh, am na itam ndax ba ci baytu sàkkaat bi nga xam ne Touba ci kanam ma koy def. bokk na ci li nga xam ne nii mooy xeex xeexu ndóol te yaakaar naa 2019. maa ngi ko doon wax ci mbaarum Daaru Xudoos yàlla dogal na Touba ci kanam jëmmal na ko ba commission scientifique mu ngi koy doxal mhm. loolu tamit bokk na ci aspect yi nga xam ne nii mhm. buñ demee ba ci kanam mën naa bu ci amee lañ bëgg mën naa mhm. doon bërëb yi nga xam ne mën nañ ci xeex doon am na tamit ay journée de sensibilisation yoo xam ne dañ ko bëgg a def ci lu mel ne cancer des fois cancer de col de l'utérus ak ak jalis ak euh, insuffisance rénale ak yu ak yu mel noonu yooyu yëpp am na ay kii yoo xam ne nii donte commission santé loolu seen seen kii la mm-hmm. waaye am na ci côté yoo xam ne sociale bëgg na koo def incha allah mm-hmm. am nañ tamit ay mébét ngir am na ci bokk yoo xam ne dañuy sàkk lu mel ne waa banque de sang bu mat la bu fausé ni ñi ngi sàkku ci commission sociale lu mel ne ambulance boo xam ne danañ ci mën a eh, ñuy mayee deret di ko mën a jëlee di kii am na ambulance bu ñu leen joxoon ci at yee weesu mm-hmm. waaye soxla nañ ñu yeesalaat ba beneen loolu itam ñu ngi ciy def ay yitte di waxaale bokk yi nga xam ne nii yàlla mënal mënal na leen loolu itam mm-hmm. buñ leen ci mënee jàppale ñu mën leen ci jàppale mm-hmm. lu mel ne eh, ci ñiy def jalis fii mm-hmm. eh, mooy ñi nga xam ne ñoo am insuffisance rénale ci ci Matlaboul Fawzayni daanaka lu tolloo cent personnes ci dëkk bi am nañ am nañ am nañ feebaru roñoo te ñoom itam am nañ jafe-jafe ci wàllu ambulance bu leen déplacé ak yu ni mel loolu itam bokk na ci yi nga xam ne nii am nañ naal gi am nañ yéene ci Mm-hmm. yéene ji nag lañ am waaye kàttan ngi nekku fi mm-hmm. waaye suñu borom moom mën na mën na lépp yàlla nañ ci mm-hmm. taxaw ci baaxu sëriñ bi xam naa li ñu doon waxaat rek mooy commission sociale moom dëkk bi la fi nekkal ndax daa mel na sax ndigalu sëñ bi la ndax sëñ bi ci boppam moo waxoon ne wal tubasir biir yataama dawa man ansihim bi aba kula hiin moom moo ko ñaanal borom waaye tamit sëñ bi itam moo waxoon ne eh, saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te saxaaba yi ku na sa bopp dalaa gënaloon sa sa sa sa mbokk dalaa gënaloon sa bopp mm-hmm, mm-hmm. te yo yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax daa wax ne mm-hmm. laa yuminu ahadukum xataa yuhibbu li aqihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ak ngëmam du mat lu may dafa fonke mbokkam ni mu fonke boppam kon li ñuy def ci social ñin koy defal dafa mel ne lu obligation la doonul loo xam ne nii ñoom ñu ñin koy defal sax dañu cee war a sant wala ñu cee war war gërëm ndax suñu borom li nga xam ne moom dala jox bu bu ëppee say loxo rek dala koo séddale loo Euh, askan wi nga xam ne ñoom lañ koy jox mhm. nañ xam ne liñ leen di jox seen àq la mhm. maanaam lu luñ sañ ñu ta bañ la mhm. dañ leen ko war a jox te buñ leen koy joxee tamit du jaage ne buñ leen ko joxee dañoo war dañoo war a benn wan wane benn faiblesse ci suñ kanam wala ñu wane benn benn benn torox la ci suñ kanam wala déedéet déedéet maanaam lu ñu war la ci ñoom loo xam ne dañ ko war a def dañ ko war a def ndax suñu borom moo ñu ko sant ñoom sëriñ bi feddali ko ci ci ci ci ñun ngir ñu defal leen ko kon ñu ngi ñaan ñoom ñoo ñu koy defal ndax tàllal loxo dafa metti ñu ngi ñaan ñoo ñu ngi koy defal suñu borom may leen kàttan ak xéewal gu yaatu goo xam ne ñoom itam danañ bokk ci ñi man mm-hmm. ndax ñi man defaluñ suñu borom lu waral mu defal leen ñu man mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo ñàkk tamit defuñu suñu borom lu tax suñu borom teg leen ak ñàkk mm-hmm. waaye suñu borom ci boppam mooy faxaalun li ma yurid mooy mooy jëfee coobareem ci ni ko soob ak ca kam ko soob kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo man ñu gën a gestu ñi nga xam ne ñoo mënut te yàlla tax te jox googu ñu leen di jox itam buñ ca sént aw tagg buñ ci séntu aw tagg buñ ci séntu ak gërëm buñ ci séntu dara du caagi ne nit ki bu la joxee rek mm-hmm. bu fekkee na koy jox daa war a topp sa ginnaaw mm-hmm. da laa war di defal yenn yi mm-hmm. déedéet nit ki man da ko war a jox te xam ne lii lu la war la nga def ko waaye du caagi ne nit ki bu la bu la joxee rek da nga kaa war a sant wala da war a toroxlu ci kanamam wala wala wala yooyu loolu moom maa ngi ko ci doon bàyyiwaale xel ci ñi nga xam ne sañ naa leen koo bàyyiloo xel ñoom ñi ngi ko jox itam ñu xam ne lii ñu leen di jox seen seen mbir la lu jëm si ñoom du du dara loo xam ne dañu cee war a sant wala ñu ci war war ñu cee gërëm di waxaat rek ne maanaam ñi nga xam ne dañoo am soxla ci commission sociale bu Touba ci kanam mm-hmm. du ci man la ñuy jaar ñu may yónnee ay kii yoo xam ne nii ci man la ñuy jaar mm-hmm. waaye képp ku am soxla ci commission sociale rek bu mm-hmm. demee ci sees Touba ci kanam danañ ko wax li nga xam ne moom lay def ba man caa jariñu incha allah ginnaaw bu ko defee ba noppi nag man man na maa yëgal ne ma def na ko bu ko defee la ca war ci fàttaleeg ak taxawu ñu def ci suñ kemtalaay kàttan ndax bu ñu sañoon duñu dégg benn soxla boo xam ne nii. Mhm. loolu sa faju mhm, mhm. voilà jërëjëf euh, Cheikh euh, Mourtada Mbacke ibnu Serigne Abdou Fatah ibnu Cheikh Mohamad Fadal Mbacke jërëjëf euh, Soxna Diarra géey ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko fii moom Serigne Mourtada mu jëm rek ci leeral liggéeyub commission sociale bu Touba ci kanam liggéey bu am solo bi nga xam ne. ñu ngi koy def euh, ci euh, dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba ci diiru at mi yëpp. Mm-hmm. ndax ñu bëri dañu jàpp ne commission sociale bu Touba ci kanam seenub liggéey ci biir weeru koor gi rek la yem. Mm-hmm. waaye seenub liggéey ci diiru at mi la mu liggéey yoo xam ne ñu ngi koy def di ko jox tamit ña nga xam ne ñoom lañ ko war a jox. Mm-hmm. ndax néew liggéey boo xamante ni dafa am par parloo tey xam naa Serigne Mourtala rek jege naa ko ba tax na su ma amee benn cas social mu ñëw expliquer ko ko donte loolu amul sax dañuy njëkkati koppar jox ma ñoom lépp lu ñuy def dañ koy gëstu ba mu wér ñu jaarale ko fa mu war a jaar ba ki nga xam ne moo ci war a jariñu mën cee jariñu mhm. ñu leen di santaat bu baax a baax di leen gërëm liggéey bu am solo boobu mhm. ñuy def ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ndax yaakaar naa bu fi ku tedd ki nekkoon mu Cheikhul Khadim moom moo koy defal boppam ndax ku ne xam na ni mu mel ci yërmande ci jaam yi mhm. te yéen ci kanam ngeen jóg di ko defal Cheikhul Khadim kon loolu yaakaar naa liggéey bu mag a mag la boo xam ne bépp taalibe war na jóg ñëw ànd ceeg yéen bépp kilifa war na jóg ñëw ànd ceeg yéen mm. waaye képp koo xam ne bëgg na def lu baax war na jóg ànd ceeg yéen mm. surtout ñi nga xamante ni seen loxo jot na seen ginnaaw mm. bañ bëgg yenn saay di dimbali askan wi loolu yaakaar naa ñoom buñ ko mënut a defal seen bopp war nañ mën a jóg ñëw jaarale ko ci commission sociale Touba ci kanam mu defaral leen ko te boobaa lañ bëgg mu àgg ci euh, néeju doole ji boobaa dana fa àgg kon loolu yaakaar naa benn appel bu ñu 26 68 77 914 26 68 di numéro bi nga xam ne képp ku bëgg a def sa contribution mën na ko cee def. Mhm. te la nga ciy def incha allah dana agsi fi nga xamante ni euh, fa nga ko bëggoon mu agsi kon ñu santaat bu baax a baax Serigne Mourtada ci liggéey bu am solo bi ak mboolem commission sociale bu Touba ci kanam sant tamit mboolem. kilifay Touba ci yëpp lépp ñu teg ko ci loxoy Serigne Abib Mbacke moom Cheikh Amadou mu wàcce ko ba ci loxoy président Serigne Abdoul Fatah ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lay àndal liggéey bi yëpp rek ñu leen santaat bu baax ci liggéey bu am solo bi waaye di sant tamit mboolem équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndal ñuy fàttali rek mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ne ñu ngi fii en direct ci résidence Khadim Rasoul di waajal bisub korité gi muy korité 1443 ginnaaw gàddaay gi sànq rek maa ngi gis ci ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre en direct. ci euh, euh, réseaux sociaux yi. maa ngi gis ñenn ñuy commenter di laaj ndax weeru feeñ na wala feeñagul waaye weeru feeñ na euh, ñu fàttali ko weer weeru feeñ na ginnaaw saytu goo xamante ni amal nañ ko fii ci grande mosquée bu Touba. ci commission bi nga xam ne moom moo fi nekk ñu gëstu ko ba mu wér. Mhm. def nañ annonce leeral ne weer wi feeñ na. Mhm. kon ñu ngi ndokkeel mbooleem jullit yëpp di leen ñaanal koriteeg jàmm di leen balwaq di ñaanal suñu kilifay diine yëpp yàlla yàggal leen fi. yàlla gën a wàccee xéewal ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal jàmm sax fi bu baax a baax a baax a baax kon incha allah euh, bu subaa noonu lañ fas yéene ànd ak yéen en direct fii ci Touba ci euh, ñu dooree ko ci suba gi incha allah direct bi danañ ko teer a door ci euh, lépp loo xam ne day bàyyeekoo fii ci grande mosquée bu Touba. Mm-hmm. ci jullik korite gi ñu ànd ko xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mm-hmm. moom Serigne Bassirou nga xam ne fi lay jullee mm-hmm. waaye kàddu yi nga xam ne da ko fi yëkkati at mu jot muy discours bu am solo sëriñ bi sax buy jugee ca Daarul Minan di ñëw fii ci grande mosquée incha allah daañu ko topp en direct ci euh, dispositif yi nga xam ne moom la ñuy mettre en place. Mm-hmm. noonu la ñu fas ànd ak yéen tamit ci julli yi nga xam ne ñooy am ci yeneen i gox yi muy Daarul Moxti en direct lañ koy def euh, muy euh, ca Njaareem. Mm-hmm. moom it en lañ koy def ca Masalikul Jinaan en direct lay doon ba ci julli yi xam ne ni ñu ngi jokkook ñi nga xam ne dañu nekk ci biir réew mi muy mbooleem jumaa yi nga xam ne ay taalibe ñu nga fa ay jullit ñu nga fa ñu mën a am. ñu mën a jël li nga xam ne moom moo di direct bi incha dañ ko jël ñu dégtal leen ko nga xam ne su ngeen ko kalee ci mbooleem chaîne yi nga xam ne moom ngeen di suivre actuellement nga xam ne dañoo lëkkale doole yi lépp rek ngir liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal euh, lislaam ci bis yu mel nii lépp rek ngir gën a wasaare li nga xamante nii moom moo di euh, njàngaleem Cheikhul Khadim donc euh, ñu leen di wax rek ne suba incha allah it ci guddi gi daañu amal plateau spécial bu yaatoo yaatu ñu koy seq Serigne Gana Messere Makhtar ci thèmes yu am solo yoo xamante ni incha allah euh, ak yeneen invité yu bëree bëri ay jàngkat yoo xam ne incha allah daal leen jël fii lépp daal incha allah ci spécial Korité lay doon ngeen ànd kook mboolem chaîne de euh, chaîne yi nga xam xamante ni ñoom ñooy diffuser événement bi en direct moo xam Bichri TV la moo xam Touba Vision la moo xam Assalaamy TV la moo xam Académie Minan TV la moo xam Ndindy Actu la moo xam Sunu Info la moo xam Al euh, Alxadimi la moo xam Guy la Euh, chaîne yooyu yëpp incha allah euh, yaakaar naa aw ma bu ma fàtte daañu leen euh, diffuser en direct mboolem événement yi nga xam ne moom la ñu ànd fii nii ci résidence Khadim Rasoul mhm. lépp na ci dispositif bu am solo yoo xamante ni jël nañ ko lépp loo xamante ni ay image la rek da ngeen ci am yoo xamante ni mosu leen koo am lépp ci équipe technique bu xarañ boo xamante ni mettre nañ ko en place mhm. fas yéene ànd ay reporters yoo xam ne dinañ déployer ci dëkk bi mhm. fenn fu ci nekk ñu mën ñoo jëlal julli gi fa nekk incha allah ñu fas yéene leen ko baaxee mu nekk une première ñuy santaat bu baax a baax mboolem équipe équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci biir weeru koor gi ndax liggéey la boo xamante ni yombut bés bu yàlla sàkk fi la ñuy nekk ba 2 heures du matin 3 heures du matin am na ñoo xam ne fi la ñuy fanaan sax. fii ci grande mosquée bu Touba ñoom jël nañu ay matuwaay yu am solo ci wàllum yaatal mboolem activité yi am équipe technique bi yëpp muy cadreur muy monteur muy euh, muy muy yi ñëpp sant nañu leen muy muy muy journaliste yi muy présentateur yi muy ba ci soxna Fat Fall ñoom soxna Mbène nga xam ne ñu doon taxawu bu baax a baax a baax mboolem taskatu xibaar yi fi nekkoon ci yëpp nga xam ne euh, ñoo ko ci biir weeru gi mm-hmm. lépp rek ngir euh, dundal euh, li nga xam ne moom baaxee santaan ñëpp daal bàyyiwuñ kenn incha allah rek xam naa ne di leen dig daje incha suba ci suba gi incha allah ñu fas yéene jël direct bi ci suba teel gi mm-hmm. tàmbali liggéey bi ngir ngeen mën di am lépp loo xam ne dafa jëm ci euh, julli korité gi xam naa dañu leen tàggoog yéen rek ci reportage yu commission sociale bu Touba ci kanam bi nga xam ne def nañ ko ci biir weeru koor gi mhm. sant leen bu baax gë gërëm leen ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu gën fee yàgg te gën a wér wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñaar téeméer yi Touba ca kanam di laaj weeru ne dafa jëm ci liggéey dëkk bu sell bi di Touba ci mbooleem infrastructure yoo xam ne dëkk bi da ko yittewoo laalewul dara ak commission sociale bu Touba ca kanam commission sociale bu Touba kanam ci njiital Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah commission la boo xam ne lépp lu ñuy jot ay jaayante lay doon yuy ko ci mbooleem jullit yi ñu koy delloo ci néew ju doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ci taxaw leen ci mbooleem loo xam ne dañ ko yittewoo ci seenug dund ak nekkin ba ñu ko taxawalee ak léegi commission sociale bu Touba ca kanam jot nay liggéey liggéey yu am solo ci dëkk bi xool ay néew ju doole tabaxal leen kër yi nga xam ne moom lañu dëkkee woon tam jéggi woon dayo lool ci nekkin amoon it njaboot yoo xam ne dañoo amoon jafe-jafe ci wàllum ndox ñu xëccal leen ndox ba ci seen biir kër yi ba ci daara kaamil ji nga xam ne moo nekk ci biir jumaay Touba te ña fa nekk seen liggéey di jàng alxuraanul karim bés bu yàlla sàkk bëri na loo xam ne commission sociale bu Touba kanam moo leen ko gàddul ci ay koppar ñi nga xam ne it dañoo nekk ci dëkk bi te am jafe-jafe ci wàllum ordonnance commission sociale bu Touba ca kanam dafa lëkkaloo ak pharmacie boo xam ni képp ku amee ordonnance ba mu gëstu ko mu leer dala yebal ci boobu boobule ñu jox la mboolem garab yi nga xam ne moom nga yittewoo noonu it la ñuy taxawoo ñi nga xam ni dañoo nekk ci kër docteur ci wàllum paj commission sociale bu Touba ci kanam yemul foofu ne événement yi nga xam ne moom moo di tabaski korité ak grand magal bu Touba noonee la ñuy taxawoo néew ji doole ji ci ay yére dàll ba ci koppar yoo xam ne daañu leen ko jox ngir yooyu le xew-xew ñu mën koo dundal ni ñu ko bëggee. ci atum 2022 bi commission sociale bu Touba ci kanam di waajal sixième édition social Ramadan di bis boo xam ne dañ koy amal ci biir weeru koor gi ci jàppale néew ji doole ji nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bii di Touba te am ay jafe ngir mën a taxawu seenug njaboot ci biir weeru koor gi ci ak dund objectif commission sociale bu Touba ca kanam moo di lu toll ci ñetti junni njaboot ñu jox leen ak dund ci journée sociale boobu nga xam ne moom la ñuy waajal nii lañ ko fas yéenee tëralee nag moo di mbooleem quartier yi nga xam ni dañoo nekk ci Touba te ay sancaan commission sociale bu Touba ca kanam dana fa yabali ndaw ngir ñu amal recensement bind mbooleem ñi nga xam ne yeyoon nañ ndimbal googu ngir ñu jox leen ko ci bés bi ñuy amal journée sociale bi dañ koy jébbale rek ñu jox leen li nga xam ni moom lañ leen di dimbalee mu jëm ci ceeb suukar ak koppar yu ñu lay jébbal muy transport boo yóbbee dund gi nga xam ne moom lañ la jébbal journée sociale ramadan boobu commission sociale bu Touba ca kanam mi ngi ko jàpp le 16 avril 2022 ci résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Touba Daarul Manaan social ramadan commission sociale bu Touba ca kanam di ci woo ñëpp képp koo xam ne bëgg na ciy jëf ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di néew ju doole ji leerle seeni barkeelu ci numéro yi affiché am na Wave Orange Money ak compte bancaire ay ci leen murit nañu roy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général de mourides ndax at mu jot kenn du ko jiitu ci jëf ci commission sociale bi ngir jàppale ñii di new ji doole ji ay ci leen murit bu liggéey bi laal suuf benn yoon ñaar yi Touba ca وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا man mën naa ne daal yëg naa ne am na genn koor daal goo xam ne naafile nañ ba ci biir naafile gi mu mel ne ci la air bi tàmbalee ñëw yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan man ko ndax sañ na maa ñëw man rek mun ma mi ngi lay xaar nii de mi ngi mi ngi mi ngi ko Sëñ Tuubaa di la xaar ma ko nuyoo mu ne ma njël gi daal laa bëgg ngeen jël ko. wa yakfi janaabi sharra maa huwa waaqi salaatan wa tasliman min allahi abtaxi liman kaana bi taaxaati abdan yusaariu buñ nekkee ci biir jumaa ji ci biiru bàkkam ba noppi difa difa difa difa yëkkati aw bàkkam it dañuy yëg ni noonu moom mi ngi nii noonu tam la ñuy yëgee ni im ko doon wax mi ngi nii noonu la ñuy yëgee tam kii ko ko doon wax loo mi ngi nii waxoon na Cheikh Bukhari ne ko sa baay de na ma jaamu yàlla baax na fu ne waaye sakk ne na Tuuba kon lii du Mouhamadou Mountakha def ngir dundal la nga xam ne kilifaam yu tedd ya ak waajuram yu tedd ya doon nañ ko def. moo tax njaboot siñ Tuuba gépp ñëw fi ànd koog moom di ko bége te xam ne xaasi boppam la ñu ko Sëñ Tuuba xaasal. ñu yéene ko ko te di ko ñaanal yàlla mu gën cee dolli am ndam. mu ne ko defal ma ci lépp loo xam ne soo ko doon def yow am ko ci mu ne ko defal naa la ko moo tax sëñ bi teg moo tax ma am ci bind ak waay nga xam ne màggatum lawbe mu yorul lu dul menn mbaam maanaam li ko ci defal ku ko defaloon màggatum lawbe mu yorul lu dul menn mbaam dana ko jox toog ñun su fekkente ne weeru koor dikkati na Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko dundalee nii di fàttali njaaram yu jëkk ji suñu amee tawféex yi ànd koog moom sant rek. ci pàkk bii la ko fekk ba ko ko sante ba mu génnee dafa wax ne borom Touba ay ndogo la may toggaloo ndogu yi ma borom Touba di toggaloo nag sëñ ku ma ci defal lu tànk danaa la ci defal loo xam ne doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira ndog yi dañuy wax mbirum Serigne Touba rek day am tànki kanam mais doo am tànki ginnaaw biñ koy tàmbali année bi ñu ko njëkk a def 2005 boobu budget weer wi yëpp matul woon sax 1 million 900 quelques mille waaye daaw daaw ñu ngi ci 59 millions et quelques. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا fu jógee man mi sax xawma ko man mën naa ne daal yëg naa ne am na genn koor